bismillahi irrahmaan irrahim alhamdulilahi rabil alamin taala wa barakatuhu asalaamualeykum mbokk yi dinu bàyyi xel ci rajo UCAB université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam daaru alimul xabir mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq di leen baalu àq di rafetlu lool ànd bu yéen a ngi koy ànd ak ñun sunu ay programme téeméer ak ñett yu tombal juróom di cent trois point cinq ci bande FM bi internet bi ñetti w point a deux itv net mbokk yi tey la àllarba fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru octobre di weeru tubaab atum deux mille vingt deux di ñaar fukk ak euh, ñaari fan ci weeruk euh, wolof di gàmmu ci junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi waxtu yi jamono ji ñu ngi ci dix heures trente sept fukki waxtu ci suba fanweer ak juróom-ñaari simili moo boot ci kawam pap Sayar Mbay ci àddukaay gi ak ci wàllu machine bi Cheikh euh, Bey ci camera bi waaye ci jàppandalu Cheikh Amar seen spécial li ñuy waxtaane doon jotaay bu UCAB daf leen ko tànnal ngir ñu ci waxtaanee dëkk bi ak ñi ci dëkk bi lépp luy wormaal dëkk bi waaye lépp luy jàppandal nekki ñu ci dëkk bi ñu ciy laayante biir altine talaata xam ngeen ay thème la ñuy indi àllarba gaaw ñu yaatal jotaay bi leen kàddu gi ku ci ne xool fa ko soob mu rafet mu àddu ci ñu ànd moom ni ngeen ko doon yëgee nag mbokk yi ñu leen ko doon yëgal fan yépp di émission spéciale boo xam ne kon tey ci àllarba ji moom lañu fas yéene ànd ak yéen xam ngeen àllarba nag dañoo baaxon doon leen jox kàddu ci ngeen moom ko ñu ku ne fa nga bëgg waaye nag tey damoo indi gan gan goo xam ne yaakaar naa ne ñi ko soxla bari na ndax lay firndeli rek mooy ba ko tàmbali di yëgle rek la tàmbali di yëglu yaakaar naa ne tey man sax daanaka mënoon naa bañ génnee benn laaj rek liñ ma yónnee ci ay laaj donc mënuñu ko évacuer ndax loolu day firndeel rek itte ji nga xam ne li ñu bëgg a waxtaane itteel na askan wi muy monsieur Cheikh Niane euh, mooy président tribunal d'instance bu Mbacké doon kilifa gi nga xam ne moo jiite tribunalu Mbacké moom lañu dalal fii mu doon nag jotaay boo xam ne moom moo ko jàppandal lool nag ndax la ko waral rek mooy bëgg gindi askan wi bëgg a taxaw askan wi bëgg a yee askan wi ngir lu bari loo xam ne lënt na ci ñoom ñu ci ubbeeku ndax bu ñu koy xool lii ñuy waxtaane du wàllum kayitu juddu yi doon na loo xam ne lu itteel askan wi nekk ci dig digal bii la moo xam diggante Mbàkke ak Tuuba rawate na nag Mbàkke gi nga xam ne coow la bari na fa lool ci li nga xam mooy soxal wàllum kayit ku ci ne ittewoo nga ko lool loolu nag moo tax moom président tribunal monsieur Cheikh Niane teew fi ñu koy sant di ko gërëm lool teel naa ñëw ngir ñu ànd ak moom jotaay bi yaakaar naa ne rek kon dañu koy fas yéene rek jox kàddu gi mu nuyoo ak mbokk yi su ko defee ñu door li nga xam ne kon moom moo di waxtaan wi ci li nga xam ne kon moo ñu tax a jóg tey ñu mën koo leeral xam naa ne danam pàcc boo xam ne nag danañ tëj téléphone bi tuuti bu buñ demee ba ci kanam ñu ubbil leen téléphone bi li ngeen bëgg a leerlu ñu bàyyi leen ngeen leerlu ko kon monsieur le président ginnaaw bu ñu la dalalee euh, ndokkeel la dañ lay bàyyi ngeen nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo u FM bismilah bisimilah. Euh, jërëjëf euh, ñi ngi nuyoo d'abord di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh di nuyu boroom kër gi ñu dalal ak njabootam gi mu fi am ñu koy jàppale ci liggéey bi agent yi fi nekk yëpp. ñu ngi leen di nuyu di nuyu yit képp koo xam ne tey jii mi ngi ñuy déglu di yeewoo ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay eh, di kontaan di bég ci dalal bi eh, di la remercier également ci jàppandal gi nga xam ne nii yow it jàppandal nga ko suñu ñëw ndax dafay baax ci ñun léeg-léegi mm-hmm. ñu am ñoo xam ne ñuy jàppandal ñu mën a ñëw ci ñoom. comme ñoo yor kàddu askan bi ñu mën a jaareel suñu kàddu ci ñoom mhm. kon nag ñu ngi la wax jaajëf. Mhm. Mhm. jërëjëf mu doon nuyoo bu am solo président yaakaar naa ne war na mën a dugg ci waxtaan bi li nga xam ne gën naa itteel askan wi muy wàllum këyitu juddu mu doon daanaka loo xam ne ñu bëri itteewoon nañu ko li ñu bëgg njëkk xam rek mooy këyitu juddu mooy lan ak luy njëriñam. waaw euh, laaj bi daanaka. dafa dafa résumé dafa dafa tënk waxtaan bi yëpp ndax laaj bu yaatu la boo xam ne ni euh, daanaka tënk na lépp donc kayitu juddu euh, am na nu ko ñëpp xame mhm. euh, tey nag ni may waxee ak waa dëkk bi duma ko xóotal ci wàllu loi mhm. ndax askan bi may waxal mhm. faaw ma am benn langage bu ma waxee ak ñoom moo tax définition juridique yi ñuy jàngal ñun. waaw euh, du am solo ma koy wax ak ñoom. Mm-hmm. kon li ma ciy tontu rapidement rek mooy kayitu juddu daal euh, kayit la woo xam ne nii bu nit ki juddoo. Mm-hmm. bu ñëwee ci àdduna juddu euh, loolu moom yoon yëpp dëppoo nañ ci. Mm-hmm. muy loi internationale yi ci wàllu xale. constitution Sénégal bi ba ci loi bi nga xamante ni nag. ci Sénégal moo organisé loolu lépp mooy loi de cent 1972. Mm-hmm. portant code de la famille. Mm-hmm. donc loi boobu mooy loi spéciale bi nga xam mooy wax ci wàllu kayitu juddu ak état civil de façon générale. Mm-hmm. donc moom ni mu ko xoolee mooy euh, kayit bi nga xam ne ni mooy mandargaal nit ki juddu. ku juddu ku nekk war nañ laa wutal euh, firnde. que juddu nit ki juddu na. boobu nag tey jii jamono dafa dox. ay ay ay jamono mm-hmm. ci ginnaaw tuuti mm-hmm. nit ñi daan nañ amee doom ci ay kër mm-hmm. yàlla dogal na néew ma jeex na mais wàññeeku na bu baax poste de santé yi ak hôpital yi ak district sanitaire yi bari na kon tey jii ñu bari dañuy juddoo ci ay hôpital wala kër kër docteur ci gàttal kër docteur boo juddoo nag léegi gis naa ne danañ la jox sage-femme yi wala matron yi wala infirmière yi danañ la jox kayit wuy wane ne ah, doom judd na diwa ko jur këyit woowu nag kon ma nga tàmbali ci kër docteur bi bu dee ci kër yi également ndax day am nag hypothèse la om day am dañ koy bàyyi xel hmm. ndax léeg-léeg ñu gis ko suñu ay dossier hmm. donc am na lu ñuy wax naissance à domicile hmm. ndax boo boo jëlee exemple Touba ay village la waaw village bu ci nekk am na quartier yu bari yu ëmb donc chef de village yooyu nag nekk ci village yi nekk ci bopp village bi donc ku juddoo ci kër te mu wóor leen leer leen yoon may na leen ñoom it xaatim benn kayit def benn kayit boo xam ne ah am ci seede nag yu wér bu moo xam ñu demal seen bopp xool wala ñu yónni seen délégué de quartier bëgg gën a jege wala ku leen doy daal ñoo xam ne diw judd na ci kër kër diw ñu bind benn kayit wu ñuy wax nessance à domicile certificat wala attestation de naissance à domicile kon ci tënk bu xale bi juddoo rek moo xam hôpital la wala ci ak kër faw moom dana am kayit wu ko war màndarga mandargaal mm-hmm. loolu it wax nga ko léegi dañoo war a yee nit ñi mhm. sensibiliser leen mhm. foofu laay njëkk tey mhm. dama yaakaar ne tey amul kuy yeewoo ci Touba te yeewoo ci ab village wala ab quartier ñaata hôpital wala ñaata post ñoo fi nekk yoo xam ne wàllu kër kër docteur la ñuy yëngu kon tey képp ku afi amati doom ak noo ko mën a amee foo ko mën a amee te mu nekk ci dig digalu Touba ak mbake bi nga xam ne moom laa yëf département bi dañ lay ñaan di ñaax bu dee ci kër gi la. Mm-hmm. nañ ko yëgal chef de village bi. Mm-hmm. wala délégué de quartier bi mu defal la naissance a domicile bi. maanaam ku juddu rek. ku juddu rek nañ ko yëgal kilifa nañ ko yëgal chef de village bi. Mm-hmm. wala délégué de quartier bi. loolu dinaa ci ñëw ci xóotal bi ci waxtaan ndax ñoom. am nañ ay attribution maanaam am na ñoom chef de village yi. ak délégué quartier yi lu leen yoon may sax. ay sañ nañ leen ko. am nañ ko ci. xëy xamuñu ko wala duñ yëg naissance bi. chef de village ak chef de quartier yi. waaw déclaration wu xale bu judd. Mm-hmm. xam nañ ko xamuñu ko. dinañ leen yëgal xale bi judd na wala judduwut mm-hmm. loolu moom xay na ci yaatal ci biir. Mm-hmm. beneen bi mooy hôpital tudd naa ko. docteur yi waaw foofu it ku fa juddoo ñoom moom xam nañ seen métier. doo fa génn ci li ma foog. te defaluñ la attestation. wala certificat d'accouchement mooy certificat d'accouchement kon ñaari kayit yooyu ñoo tàmbali xale bi. léegi nag ñaari kayit yooyu nag. waaw comme mandargaal lañ am na xale bu judd. léegi nag moom la ñuy yóbbu soit mairie bi la gën a jege. bu dee Touba. Mm-hmm. mooy commune bii ci Daaru Marnaan mm-hmm. yaakaar naa ci kat Daaru Marnaan la bokk waaw taxuma maîtriser dëgg dëgg découpage bi mm-hmm. mais ci Daaru Marnaan la bokk nekk ci wetu Sonatel bi donc commune boobu ngay def bu dee waa Mbàkke également yaakaar naa ne am nañ commune boo xam ne ni biir Mbàkke nekk muy mairie Mbàkke ñaari kayit yooyu yëpp foo ko ci yóbbu ci ñaari communes yi selon fi nga dëkke agent ya fa nekk ñoo lay defal nag léegi kayitu juddu bi léegi nag am na ay délai après loolu xam naa. waaw boo relancé waaw. danañ ci wax kon daal li ma laaj ne lan mooy kayitu juddu. Mm-hmm. noonu laa ko mën a yaatale. Mm-hmm. Euh, ngir nit ñi man ko xam. lu lu lu ñuy jënd la wala bu may wax jënd mooy ndax lu ñu war a fay xaalis la pour am ko wala dafa doon ne sañ-sañ la bu doomu aadama war a am dañ ko ko war a defaral. waaw loolu également euh, baax na laaj parce que Sénégal euh, boo tuddee waxu xaalis. Mm-hmm. xëy na. jamono am na tolluwaayam. Mm-hmm. bu ñëpp xam. tax mm-hmm. ñu baree bari a ah, xaalis moom day jafe ñu génne ko ci surtout ci luñ mm-hmm. kon xam gi am na solo. waaw léegi nag kon euh, di ma permettre tuuti bala ma egsi ci xaalis bi kon. rapidement. ma wax fi ni jaar kon. waaw pour mu doon benn laaj. ma tontuwaale ko benn yoon. léegi moo xam chef de village bi wala délégué de quartier bi moo la defal certificat de naissance à domicile bi. ndax xale bi juddoo hôpital. ci quartier bi ci kër la juddoo. Hmm. wala mu juddoo kër docteur. Hmm. sage-femme bi wala matron bi wala infirmière bi defal la certificat d'accouchement hmm. ñaari kayit yooyu boo ci am. yoon may na la. loi Sénégal bi ci article cinquante cinquante et cinquante deux suivant. daanaka rang ci article yooyu yëpp tegaloo. waaw ci de la famille bi ma wax. loi de mille neuf cent soixante douze. bi tënk li ñuy waxtaane moom moola may nga jël na kayit wi. moo xam ndey ji la. Mm-hmm. ndey xale bi. waaw wala baay bi ko jur. Mm-hmm. wala proche parent. Mm-hmm. maanaam moo xam nijaay la. mag la bàjjan la tante dafa yaatu. ku bokk ak moom rek. ci wàllu ndey wala ci wàllu baay. donc ñooñu la ñuy njëkk jox ne ñoom daal mën nañoo dem déclarer xale bi. léegi nag ñooñu bu ñu may nañ leen ci weer wi bu xale bi juddoo tey. ba am weer. mën nañoo waaxu ñëw ci mairie bi ñu dëkkee mhm. commune bi ñu bi leen gën a jege mhm. ñu wane kayitu sel de village bi waaw wala kayitu kër docteur bi mhm. ak carte d'identité papa ji wala yaay ji wala ki koy déclaré ñu ñëwee ah man kat damay déclaré sama doom bi wala sama jarbaat bi wala sama euh, nangam ji mooy ci ñi ma lim ne sañoo déclaré bu ñëwee nag bu boobaa agent état civil bañ fay fekk moom yoon def ne faaw daf ko war a jël. Mm-hmm. daf ko war a jël déclaration bi sañu ko dàq. Mm-hmm. ko war a jël mooy li nga laaj léegi ne. droit mm-hmm. droit de l' enfant à être déclaré dès sa naissance. loolu wax naa ko léegi charte àddina bi yëpp dañ ci tëkku. ku judd am na àq ak yeleefu ñu déclaré ko xaatim ko ci këyit. léegi nag loo gis nag am na ay frais. frais yi également léeg-léegi nit ñi dañuy jaawale. frais yu ci bëri ci état la jëm trésor public. Hmm. trésor public mooy gafaka état bi. waaw ci la impôt yeeg taxe yeeg yëpp di dugg. léegi nag service bu état teg. Hmm. moo xam tribunal la commune yi euh, préfecture police feneen ak feneen lu mu mën a doon état am na fa ay ay frais yoo xam ne nii. Hmm. bu ñuy déposé dossier dañ ko koy dajaleel ñu mën koo yóbbu ci trésor. man di wote budget bi ñuy voté fa tey. ministère bu ci nekk man ci am dara. donc bu dee nag li ñuy laaj tey muy commune bi. Mhm. soo excès foofu moom dafa am ab décret boo xam ne mhm. ni. décret de 1989. Mhm. boo xam ne ni dañ ko dañ ko annexé maanaam dañ ko boole ci. article vingt neuf bu code de la famille. ci dañ ko annexé décret boobu moo organiser nag. këyit yëpp wu ñuy sàkku ci ci mairie bu mu mën a doon. la nga ca war a fay. la nga loolu moom. ça dépend ci mairie bu ne. non non non. Ah. c'est un décret. xam nga décret acte réglementaire la. président de la république moo koy jël. Hmm. te dafa am portée générale. waaw maanaam suñ ko xasee jël. Hmm. surtout ci matière yu mel nii territoire Sénégal bi yëpp. amul mairie Touba wala Mbacké wala Gossas wala Bambey wala Kolda ci montant bi laay wax parce que des fois da ngeen ci mairie bi ñun la lii nga dem ci mairie bi ñun la foofu laay ñëw waaw dama ne décret bi moom bu ko xasee jël ñëpp ko bokk hmm. Sénégal léegi nag décret boobu fixé wut ne directement nangam ji la mënut a ñàkk fourchette nu ma ko mën a waxee ci wolof. Ah, ay diggante diggante. waaw daf ne. Hmm. bépp këyit. Hmm. bépp këyit. xamante ne nii. Hmm. ñu koy wute ci mairie. ci wàllu état civil nag la wax. waaw je parle pas de domaine domaine domanial. waxuma suuf. waxuma leneen. man wàllu këyitu juddu laay wax. ay ay ay ay mariage ak. ay këyitu juddoo ay décès décès ak yooyu. Euh, na euh, vie collective. lépp lu laal daal mhm. état civil nit ki mhm. doomu adama bi mhm. tax te laal ci juddoom ak jëmmi boppam ji loolu la ñuy wax état civil loolu lépp luñ ci laaj ci maire yi ak communes yi décret de quatre-vingt-neuf boobu ma la wax waaw te ñu lëkkale ko ak article vingt-neuf bi dafa wax ne du yées du néew du gën a néew deux cent francs ñeent fukki fukk lu mu ndaw waaye mënut a romb téeméer Ah, lum ndaw ndaw. lum ndaw ndaw foog nga fay ñeen fukk. bu bëri waaye lum bëri bëri bëri bu mu romb téeméer. déclaration de deux cent à cinq cent. declaration këyit yëpp. këyit yëpp. këyit yëpp fourchette boobu la. këyit bu mënti doon. waaw ci ci affaire këyit. Ah. maanaam ci ci ci nit ki ci juddu. waaw maanaam ndax loolu boo gisee ñu koy laaj. ay ay ay yooyu ci la bokk. waaw moom laa lay wax boo gisee ma koy wax. waaw loolu état fayewul këyit bi timbre bi lay fayoo. Mm-hmm. timbre. timbre bi ñu ciy nga xam ne ni timbre boobu. Mhm. mooy waral état mën a am ay frais. Mhm. Ah, weccet mu dugal ci gafakaam. Mhm. timbre boobu nag. moom la état di jaay. pour léegi état mën a am lu mu dajale Touba dajale ko feneen dajale ko feneen ñu def ñu dugal ko ci courant bi wala leneen wala leneen état moo xam fu koy dugal. loolu nag. waaw ne. mënut a gën a mënut a yées. mënut a yées ñeent fukk du romb romb téeméer. donc décret 89 boobu moom moo ko teg d'ailleurs bi may door a ñëw ci dëkk bi dama jël décret bi. waaw photocopier ko. Mhm. def benn not de service. Mhm. envoyé ko les seize communes. Mhm. du département. ndax département bi. fukki commune la ak juróom-benn. ku ci nekk sa maire. sa maire ba la yilifoon. waaw jamono envoyé naa ko note de service bi. donc kon ku ci nekk xam nga tarif bi tarif bi xam nga ko. mais mais man décret décret moo ko fixé. résidence su 2000 noo ko mën expliquer kon. waaw mooy li la wax ma ne la. waaw amul explication. jaaduwul daal kon. déedéet amul explication dama la wax loi ar ci loi léegi texte de loi laa wax mooy décret décret bi nee naa la lu général la lu impersonnel la du Moussa Ndiaye moo ko tax a jog du Aïda Seck moo ko tax a jóg askanu Sénégal moo ko tax a jóg 89 lañ ko. bindoon xaatim ko soppeeguñ ko ba léegi mhm. code de la famille bi également ba tey moom la ñuy atte woo loi de 72 boobu mhm. boo ñëwoon audience bi ñuy def ci état civil tribunal moom la ñuy tim mhm. kon yooyu texte yooyu ñoo nekk en vigueur ba léegi kenn dindeegu ko loi nag bu ko jëlee ci dindeeguñ ko waaw beneen loi sottiwu ko kon la nekk rek moo mën a dox kon leneen loo ci déggaat wala ñu wax ko ci wala ñu def ko ci maanaam ay nit ñoo koy def wala ñu wax ko wala ñu sos ko waaye man juriste laa boo xam ne nii euh, di président tribunal bu Mbacké loi rek laa man wax a wax mooy li ñuy fay ci timbre wax naa léegi ne la timbre la. waaw timbre la. waaw xam lu tax tudduma boo gis. waaw na budget. waaw kon waroo fay citoyen bi papier ba. Mm-hmm. mi ngi mel ne tribunal tey nga ñëw ma ne la papier bi ma lay defalee nationalité bi. Mm-hmm. wala jugement bi fay ma ko. déedéet jaaruwut man mm-hmm. on on m'octroie un budget. may jox budget. budget boobu nag. Hmm. moom laa war a jëfandikoo jënd ci kayit jënd ci encre bu machine yi paane ma jënd ko ci kon man timbre laa la war a laaj te timbre boobu état moo ma ko laaj la moo tax ma ne la. décret wu quatre-vingt-neuf mais président foofu man dama ci am problème. parce que déjà. Hmm. Euh, deux mille bi ma la wax man dama ko gis. résidence. Hmm. ñu lay laaj deux mille francs léegi citoyen bi nga xam ne dafa bëgg résidence tey. indi domicile ñu war ko defal résidence mais dañ ko ci laaj deux mille francs te mënu koo ñàkk. mais imposé nañu ko ko ci moom lan la mën a def. waaw loolu également baax na ma xam ko. Mhm. Euh, comme xam naa ko tey. waaw nga wax ma ko nii. dinaa ci def ay gëstu ay mhm. enquête euh, mais li ñu war a fay. waaw ndax dañ koy maye. waaw ma wax la man li loi wax ak li charte réew mi wax. Mhm. kon man loolu laa la war a tontu maanaam li li li ma jàng. ñu jox ma ko ma di ko àtte woo di ko appliquer. loolu laa kon léegi nag ndax ay nit su ma déggee mu leer daal mooy képp kuy dégg fi mu toll nii waaw kuy dégg tey boo war a dégg lijjanti ci yi ñu tudd léegi nii mm-hmm. waroo cee romb téeméer ak nu man a demee du yées ñeen fukk warut a yées ñeen fukk warut romb téeméer bu yéesee ñeen fukk xamal ne la nga war a def xam kayitu juddu la téeméer bi parce que wax naa ko waxaat ko ma waxaat ko waaw amul benn institution bu sañ a jaay papier bi bu sañ a mm-hmm. jaay bi mm-hmm. bu sañ sax ne la jox ma ma defal parce que nag. Mhm. dama koy wax chaque jour. waaw man tey salarié laa salarié. waaw man fonctionnaire laa. Mhm. état du Sénégal moo mhm. mooy état du man sa morom. kon askan bi. ñun la ñooy dajale seen alal. di ma ko fay di ci fay seen morom. bu dee commune Touba bii. waaw wala commune Mbacké wala commune bu mu mën a doon. man ñaari communes yi ñoom laa ñoom laay waxal tey. ndax fi laa nekk. ak yeneen communes yi dëgg mhm. sa rajo bi mi ngi génn ci département bu baax ñu ngi lay dégg bu baax donc ma ngoog mhm. donc communes yi kon yi nga xam ne ñoo ma concerné tey mhm. nekk ci département bi commune ak juróom benn ñooñu laay waxal tey ak seen i seenu askan seenu askan donc liñ fay laaj waaw ci timbre laa wax parce que waxaat naa ko timbre la waaw du papier bu ñuy jaay kenn sañu koo jaay du encre bi ñuy tàppee affaire bi agent bi koy tàppe également mhm. dafa laa war a laaj nga jox ko mhm. du yoon mhm. c'est pas normal parce que agent boobu maa ngi moom ñoo yem man état bi ngi may fay salaire par mois kon man salaire boobu laa am beneen beneen nit nag bu soxla ci man tribunal waaw waruma fay xaalis loolu corruption lañ koy wax corruption su ma neexalee waaw wala ma ne ko jox ma ma defal la ci force corruption la parce que nit ki nit ki nag mën ngaa ñëw mu defal la sa xol seet xolam seet. mu may la ko loolu moom yow yaa ko may. loolu moom yaa may yaa ko may. man nag tey maye indiw ma waaye buñ la ko forcé maye indiw ma kii maye moom xolam man <laughs> maye indiw ma tey li ma indi mooy. waaw ñu leer ñëw di mm-hmm. citoyen mm-hmm. Euh, Sénégal ne ko. Mm-hmm. këyit sàngam am nga droit am mu dem fañ ko war a amee. waaw ñu ne ko lii boo ko joxewut doo ko am. bu fekkee lañ ne boo ko jox doo ko am. moom la loi tëral. c'est normal. mais su fekkee dañ caa njàmbaas dara. Mhm. wala ñu laajte dara. Mhm. loolu corruption la tudd. loolu également na ko nit ñi di dénoncé. Mhm. cest nit ñi. ñuy boole daal war nañ am fula. ñuy ak fayda. di ñëw tribunal. wala bu dee maire yi. maire am na kilifa. waaw tey jii mën na jël maire bu mel ne. Touba. moom a gën a jege. ngi jàkkaarloo ñoom. waaw euh, euh, monsieur le maire Abdou Lahad Ka. ci. Euh, seen élection bu bees bii. waaw bi mu bi mu ñëwaatee. dafa waxtaan ak ñu mu ko seqal ba créer une commission chargée de l'état civil. Mm-hmm. loolu musul am. musul am ci organigramme. maanaam mm-hmm. ci xam nga nu ma ko mën a waxee ci wolof ci. ni ñu yi ñu ni ñu tëggee ni ñu tëggee kuréel yi ëmb maire bi. ni ñu ko tëggee. xam nga maire am na kuréel yu bare. waaw ni ñu ko tëggee. kuréel yi ëmb maire bi nag. waaw mosu ci am loolu innovation la mosu am. lu mm-hmm. bees la ak yeesal la. na ni. léegi sax wàllu état civil. damaa jël ab commission. Mhm. créé ko ci benn délibération. Mhm. xaatim ko ci kayit mhm. ne léegi désormais Touba am na commission boo am rek ci lay dox ci lay wax. commission boobee nag ca bopp ba. am na ku ñuy wax Bamba Fall. waaw moom mooy président commission bi. kon loolu leer na. amaat na it ay éléments am yoo xam ne nii ñu ngi ca bokk. ci ñi ci gën a fës te ma xam leen ci mënuma lim ñëpp. Euh, am na ku ñuy wax Ababacar Fall. Mm-hmm. ci kilifa yi la. Mm-hmm. am na ku ñuy wax également Dame Diop. ci mm-hmm. kilifa yi la. Serigne Serigne Mbacke Mara. moom ci kilifa yi la ak ñeneen ak ñeneen. moo tax ma ne dama doon junj rek. léegi commission boobu nag am na. léegi commission bi am na. man su fekkee man ab citoyen la dëkk Touba. ma xam ne tey président tribunal bi. parce que man je parle sur la base de texte. du ma wax nii dama naan la article sangam. donte bëggumaa wax ay tubaab tey mhm. mu xóot ndax ñi may waxal mhm. waaye nag foog ma am fu ma ko wéer waaw ndax am na intellectuel yu may déglu ba tey mën a xam ak ay juristes sax certainement yu may mhm. déglu donc moo tax ma ne dafa am benn d décret boo xam quatre-vingt-neuf la décret boobu ñu ngi ko njàmbaas ci article vingt-neuf de la famille li wax annexe boobu moo fixé li ñu war a fay ci bépp këyit bu soxla ci wàllu état civil nag laa wax ci maire yi ak commune yi léegi nag yow boo ñëwee ñu ne la décret bi nee na warul yées ñeent fukk mhm. warul ëpp téeméer moo xam timbre mariage la mhm. moo xam timbre naissance la mhm. moo xam timbre décès la moo xam lettre de confirmation dina ñëwaat lettre de confirmation dinaa ñëwaat ci biir xóotal bi lu muy jariñ moo xam leneen leneen mais lu laal état civil kooku mënu romb téeméer man décret laa wax texte laa wax ku ko rombale nag dëg la ca sonal wax naa léegi ne. Hmm. monsieur Bamba Fall. waaw mooy président commission état civil. Hmm. kon monsieur le maire. Hmm. doo fa dem di ko ko jàmbat. parce que moom bañ na ko ba dafa wut. kuréel goo xam ne léegi moom la dénk état civil ci maire kon yow bu fekkee yow am nga jafe-jafe boobu. te xam say droit xam say àq say yelleef. mais demal nga laajte Bamba Fall. waaw ndax dafa am hiérarchie. waaw boo laajte Bamba Fall. mooy kilifa commission bi. waaw nga ne ko man lii ak lii lañ ma wax Bamba également jël ay responsabilités agent ba ko def wala wala ña koy def mm-hmm. mu réglé ko à l'interne moo xam Bamba la mm-hmm. moo xam Ababacar Fall la moo xam Dame Diop koo ci gis mm-hmm. ci ñooñu mais damay commencer par le commencement ndax kilifa ga mooy bamb Fall président commission bi donc loolu yaakaar naa ne buñ ko ku ko xam tey xay na ñu bëri xamuñu li may wax mais comme ñu koy xam tey di ko déglu buñ ko xasee xam nag mm-hmm. ku leen bëgg a defati leneen mm-hmm. nañ dem ba ca kilifa ga ko yor muy Bamba Fall wala Dame Diop wala Babacar wala keneen ko xam officier état civil boo fa nekk di kilifa ñu wax ko léegi nag à l'interne ci seen mm-hmm. biir su saafarawul man maa ngi sama tribunal toog di président tribunal article trente cinq waaw bu code de la famille moom ma sant man ak procureur de la république ne yéen ñaar ñooñu yéenay contrôler superviser mhm. saytu mhm. état civil yi mhm. la fay nekk ci fonctionnement ba ak organisation kon bo bu ñu amul fi solution waaw nañu waaxu ñëw ba ci man wala ba ci procureur ne ko ah dañ ñoo wax ne kat loi bi moo ne lii ñu war a fay kat warta romb téeméer laaj nañ ma ñaari ñaari téeméer ñaari téeméer deux mille bu dee deux mille mooy ñeenti ñeenti téeméer laaj nañ ma ñeenti téeméer hmm. laaj nañ ma junni laaj nañ ma juróom-benn junni laaj nañ ma nangam laaj nañ ma nangam bu boobaa kilifa googu di il va prendre ses responsabilités hmm. dina woo agent bi hmm. il le convoque dans bureau ndax lépp it départ bi du ma ne maslaa la mais waxtaan la waxtaan la buñ la woowee ne la nee nañ ñu yow kat nangam ngay def s'il le faut sax ñu yeesalaat. waaw ñu xaatimaat suñu note de service bi. Mm-hmm. bu dee procureur mu joxe ay instructions bind ko par mm-hmm. écrit. Mm-hmm. ne maa ngi leen di rappeler par ces instructions les dispositions de tel décret telle loi wax na lii ak lii donc nañ ko appliquer à la lettre. wala bu dee man également je prends une note de service wala une ordonnance wala instruction également rappeler disposition texte bi wax leen li li ñu war a ak lu ñu def dès l'instant que nag y a un soubassement texte maanaam am na léegi nag ku violé texte boobu ko jalgati procureur dana def liggéeyam. Mm-hmm. man également ma def sama liggéey. Mm-hmm. Ah, léegi léegi président këyit bi nga xam moom la ñuy déposé muy déclaration bi. Mm-hmm. Euh, est-ce que am na dure bu ñu joxee ne moom la war a am pour citoyen bi jotaat këyitam ndax léeg-léeg nga déposé ko naan taw naa ñetti weer ñeenti weer jotuma këyit bi ñu naan ma registre ñu naan ma lii loolu ndax na délai. waaw loolu également laaj bu am solo ndax bi may ñëw rek. waaw dañ ma ci interpellé. ma indaale ko. kon mooy firndeel ne laaj bi ñor na am na solo te dama ci bëgg ci tontu bi mm-hmm. pour tontu nit ñi leeral leen euh, déjà maa ngi woon ci frais yooyu kon frais yi féete na boor léegi féete na boor leer na ci bopp nit ñëpp xam nañ ko mm-hmm. léegi nag ba tey maa ngi ci déclaration mairie bi mm-hmm. ñëw guma tribunal waaw weer wi mu laa waxoon bi weer wi bi weer wi jeexee te déclaré woo. Hmm. mayaat nañ la quinze jours. Hmm. quinze jours yooyu wax naa ko léegi chef de village bi. Hmm. wala délégué de quartier bi. su fekkee am na pièces yi. maanaam am na firnde juddu bi. mooy yi ma waxoon ci njëlbeen gi. waaw kayitu chef de village wala hôpital bi. ak parent yi jox ko carte d'identité seen i carte d'identité. moom it également ci quinze jours yooyu. wala délégué de quartier bi bon muni de ces pièces là. man naa dem déclaré ko moo tax ci biir waxtaan bi ci mhm. njëlbeen gi ne woon naa la ñoom am nañ sas bu leen état sas mhm. ci xale boo xam ne nii toog nañ weer déclaré wuñ ko mhm. bu fekkee ñoom am nañ possibilité déclarer ko en ayant les papiers à leur disposition ñu am ko kayit yi ko koy firndeel ndax nag doo am naa doom diw la tudd ñu gëm la ndax mën naa doon fraude mën nga am papier dugal ko feneen pour am ci ay impôts yu ñu la wàññi rek nangam. Mm-hmm. donc agent bi it am ay firnde ci naissance bi. Mm-hmm. donc kon bu passé un mois bi ci juddoom te déclaré wuñ ko parents yi quinze jours yi ciy teg parents yi mën nañ déclaré ba tey wala chef de village wala délégué de quartier. Mm-hmm. bu ñu demee nag ba romb loolu lépp ci tënk daal. rapidement ba un na xale bu juddoo ba at. ba ker muy am at. fukki weer ak ñaar. loolu dama bëgg. ñi may déglu bàyyi ci xel. da ngay gis xale mu dem ba am ñaar fukki at. barki dem rek am na soxna soxam mingi ngi sëy gàddu ay doomam. ah ay doomam. ay doomam sama bureau bëgg ah. bëggal kayit doom waaw ma ne ko bala maa may xale yi kayit ndax am nga kayit. Hmm. mu ne ma aw ma. moom seen yaay. waaw bari na junni. mënu hmm. ma ko lim. mënu hmm. ma ko lim. waaw ma ne ko man nag xëy na mm, jàppandal moo ma war. ndax dama fa dama am cër dëkk bi. ma bala maa may kayit xale. yow danga am kayit mhm. defal naa ay góor defal ko ay jigéen mhm. ñu ne ah nangam man leen déet mën na ñàkk nga xam ne kon dèjà am na ñoo xam dem nañ ba sëy nga xam ne da ngay commencé waat yaay ji waaw soog a ñëw ci xale rapidement mhm. laa koy def soo kon pour wax la am na ñu dem ba sëy wax ma xale bu na waaw ñu sëy ay mag ay boroomi kër yu samp kër amuñu këyit jour bi ñuy ñëw pour seen doom am këyit pour examen xam daf leen di ñor ci laa leen di euh, tànci pour ñu am këyit mhm. donc man noonu laay def mhm. léegi nag kon bu xale bi juddoo ba am un an te kenn déclaré wu mhm. ci maire bi ci la ñuy door a na nag ñëw tribunal loolu dinañ ñëw ndax moo indi coowul Mbàkke li problème bu jugement yooyu donc kon daal ci gatal déclaration naissance waaw ci commune bi ci mairie bi mi ngi tàmbalee ci bis bi xale bi juddoo ba keroog muy am fukki weer ak ñaar at léegi nag laaj nga ma léegi ne ma ki déclaré ci délé boobu. waaw moom def na li ko war ko. waaw ki ci un mois. waaw déclaré ci quinze jours ya. waaw ci six mois ya. waaw sax ci biir at bi. kon moom jaanam wàcc na. Mm-hmm. ndax dafa am délai. Mm-hmm. pour mu jot këyitam. loolu nga ma laaj léegi. kañ la ko war a jot. Mm-hmm. loolu ma laaj léegi. wax dëgg yàlla comme li ma wax man juriste la. bu dee ci loi. bu dee ci texte rek. amul délai. amul délai délai boo xam ne nii. dañ naan la boo déposé tey tey tey mhm. dans quinze jours dans vingt jours ba ci tribunal ah waaw ba ci tribunal waaw mais tribunal sax moom au moins tane na parce que tribunal mhm. teg si daf organiser lu bëree bëri mooy mhm. délai d' appel yi ngay dégg yëpp te mënoo def appel sans nga jot sa këyit moo tax ñun au moins danañ jouer ci ay délai par contre mairie moom le commune là ci affaire état civil déclaration de naissance amul benn texte man bokk dëgg yàlla. waaw du man damaa xam leen. kon ci ñoom lay neex daal heure bu leen neexee. foofu laay ñëwee pas neex nag. Mm-hmm. foofu laay ñëwee pour ñu canaliser. Mm-hmm. amul délai. Mm-hmm. mais nag y soo ce qu'on appelle une organisation interne. interne. mi ngi mel nga jël assemblée nationale. am na règlement intérieur. kon institution boo gis. kuréel goo gis muy dox. di dimbali di yëngu ci ab askan. war na am une organisation interne. moo tax ma bi may ñëw dañ ma ci yaakaar naa loolu. Euh, fii fan. waaw fii fan dañ ko laaj tey rek. Mm-hmm. mais fekk na ñun ñi ngi ciy dox tuuti. Mm-hmm. fii fan da nga ci dégg dara. Mm-hmm. mooy dañoo bëgg a waxtaan. ñu ko seq ñun. parce que cri de cœur bi nga def nii. daaw rek am na fi. am na ko defoon ben ko posté woon benn vidéo. fii ci kaw tali bi. waaw daal dama déposé kayit mu def deux mois trois mois. aw ma kayit. vidéo bi yónnee nañ ma ko. waaw yónnee ko monsieur le maire. yónnee ko ñeneen mu jaar ci site ba coow lu bari am ci gis naa vidéo loolu nag moom mhm. moom moo am keroog euh, tolluwaayu wax ko mhm. mais du moom kese mhm. bari na junni ay nit ñoo xam ne ni man avant may ñëw comme li nga li la wax ci semaine bi ak bi ko jiitu wax nañ ma ko jooy nañ ko ay nit wax nañ ma ne ay nit ñu ngi koy jooy ba tey ci suba rek maa ngi ciy tënk ay kilifa yoo xam dama bëgg ñu toog ñoom ñi ko seq ci biir maire bi man ma ñëw toog ak ñoom superviser ñu xool comment on on va organiser cette situation là parce que nag foog ñu organiser ko ndax nit mënul déposer benn këyit toog weer ñaari weer hmm. war a def examen hmm. war a def passeport war a yóbbu doomu wala Espagne hmm. te mënul nekk loolu nag li koy régler danañ ko waxtaan incha allah te ñu ngi ci donte amul délai yoo xam loi moo sikki mais nag am na lu ñuy wax délai raisonnable lu jaadu xam ne nii ki war na ci am donc loolu fa lañ toll actuellement nii danañ ci réunir pour régler ko parce que mënul ñàkk ñu régler ko léegi nag dinaa la wax rapidement mhm. li koy indi waaw donte amul délai mhm. parfois mhm. parfois registre yi am rupture te loolu yàgg naa ko wax du yoon c'est pas normal man ko ñu dégg foofu laa bëggoon a ñëw man tey ñaari lay yi ñuy indi benn bi mooy waaw signature maire signé gu ko beneen bi registre amu fi registre boobu nga tudd léegi. waaw fu muy jógee ndax euh, tribunal moo koy joxe ndax mairie koy joxe ndax pour ñu gën a comprendre registre bi fan lay jógee. waaw léegi nag registre boobu déjà. waaw dafa am benn décret également boo xam. Hmm. yàgg na lool état du Sénégal moo ko jël. Hmm. daal ne kayitu juddu dama ko fonk fonk goo xam ne ni. Hmm. kenn def ci cahier cent page. boo kenn def ci feuille volante. boo kenn def ci ludul. ab registre boo xam ne nii. modèle bi ak modèle bii lay am. mention yi ak mention yi ñoo ci nekk mhm. donc format la boo xam mhm. état moo ko créé nga xam ne lu dul foofa sañoo faa xaatim état civilu jàmbur mhm. du mariage ba du naissance ba du décès ba kon pour ñu xam déjà luy registre donc du du n'importe quel papier la ñuy jël di ci bind yëfi jàmbur décret boobu nag bi ko état bi organisé pare wax modèle bi léegi nag mairie bu ci nekk yow am nga modèle bi mën ngaa wut sa fournisseur maanaam sa sa sa imprimeur boo xam moo la koy defaral hmm. su la ko defaree état dafa xereñ waaw du la bàyyi rek nga toog di defar rek di nëbbatu hmm. moo tax mu ne président tribunal yow nag yaa may contrôler ndax hmm. registre boobu waa meer yi defar te ma ne woon nii lañ koy defaree pour def ci këyit yi tax conforme na dëppoo na ak bi ma wax wala dëppoowut moo waral bu ñu jëndee ñoom seeni registre ba pare dañ koy gàddu indi ko tribunal. waaw président tribunal bi wala juge bi nga xam ne moom la délégué. Mhm. boo amul jot juge am. ko xoolal ma registre yi ñu la jox. Mhm. te war cee bind naissance yi. Mhm. ndax dëppoo na ak li loi bi wax. kooku magistrat bi xool ko contrôlé ko. su fekkee registre bi conforme na. waaw mu door ko paraphé. donc bind ci moom ne registre bii ñu ma jox kat tàmbalee page page page sangam ba page sangam. nangami feuille ñoo ci nekk. dèjà dañuy xam ñaata cinquante page la wala quarante neuf wala quarante huit quarante huit moo ci a tuuti. Mhm. cinquante moo ci xaw ëpp. Mhm. donc mi page la xool naa ko dëppoo na ak li ñu waxoon. Mhm. ci décret bi. par conséquent dinaa ko signé jébbalaat leen ko ngir ñu tàmbalee xaatim loolu mooy waral kon registre boo xamante ne ni jaaru ci loxo tribunal. waaw c'est un c'est un irrégulier te acte buñ te bind see annulable baaxut fictif la te ku ko def yoon war na laa mën a topp bu ko xamee. jàpp la ndax foo la foo la kon daal ci biir bu mu euh, a doon tribunal yi tàmbalee moom maire koy wut maire jël da nga laaj lu am solo kan ma koy jënd waaw mu leer nañ ñi maire yi mooy jënd registre waaw kon registre bu manqué mm-hmm. bu manqué ci njalbeen responsabilité maire yi la mooy moom mi war a jënd mm-hmm. moo jënd bu fekkee anticipé wut mm-hmm. maanaam tey ji maire Touba ci exemple moom laa maîtriser Touba nag rëy mooy commune bi nga xam ne ni bu ndakaaru weesoo hmm. ci population ci askan moo ci topp loolu il faut que autorité yi ci dëkk bi kilifa yi ci dëkk bi xam ko ba gën a jàppale maire bi ah waxaat ak suñuy kilifa ci kaw luñ mën a gën a jàppale maire bi ci wàllu état civil loolu naa ci xóotal hmm. ndax loo xam ne ni bu capitalu Sénégal toppee ci as euh, weesoo ci askan ci bariwaay hmm. Touba di commune di bërki démb kese moo ci topp ci askan kooku kon euh, fa fa agent yi nekk di fa liggéeyee mooy mairie ba ko gàddu mhm. kon loolu beneen mbir la mhm. moo tax ma ne la registre bu manqué waaw rafetlu ma ko man te jàpp naa ne du yoon moom xanaa daa cher bo war a manqué déedéet tax ko cher mais problème bi manqué bu moom laa lay wax waaw xam nga gérer c'est anticipé waaw bu la dénkee kër mhm. mu ngi mel sa kër yow tey xam nga ña fa yeewoo pratiquement xam nga yow looy jënd ci ration par mois xam naa ko donc waroo toog mhm. ba mu jeex ma daw naan jeex nga ne léegi maa ngi door a jëndi maa ngi jëndi kon jour boobu fande man na am mhm. foofu laay waxee mhm. kër ak état ñoo dañ koy gérer rek donc mairie également ak kër ñoo yem tey jii mairie Touba bi ma maîtriser lu mu gàtt-gàtt chaque année pour wax la ngandaa ngandaayu dëkk bi lu mu gàtt-gàtt at mu jot mille registres junni junni dana fi wàcc junni registre junni danañ ko bind junni junni donc c'est extraordinaire il faut que suñ kilifa yi mhm. conscient ci que ni dëkk bi at mi yëpp junni registre junni registre nag registre bu ci nekk cinq cent pages la mhm. on fait le calcul rapidement après nga jox ma chiffre bi cinquante fois mille mhm. yaakaar naa sax on a ju zéro cinquante mille cinquante mille mooy fukki junni fukki junni juróom fukki junni ah juróom fukki junni ah mu xam nga man waaw wolof bi ak kii bi tubaab juróom fukki junni doomu aadama juróom fukki junni ay doomu aadama mhm. danañ leen xaatim mhm. ci registre par année fii à Touba lu mu néew néew laa wax mën na ko romb mhm. léegi imaginaire juróom fukki junni ci ay doomu aadama yu ñuy bind ci ay registre ñaata agent ñoo yor loolu ci seen néewaay ñaata officier ñooy ci seen néewaay c'est fondamental également parce que coow li bari na mais il faut constituer les responsabilités il faut que ñu xam ku luy ci loo war a def mhm. loo sañ def ak loo warta def ak loo sañul def ak loo mënul def mhm. bu dee agent yi faluñu seen bopp recruté wuñ seen bopp mhm. le maire de la commune de Touba monsieur Abdou Lahad Ka mi yàlla teg ci boppu dëkk bi tey ci loxo sëriñ bi ndax Touba dafa spécial sëñ bi mooy tabbu kon sëñ bee ko teg fi ko teg euh, moom moomu xam ne moom la yàlla dogal tey mu jiite askanu Touba ci wàllu commune mm-hmm. moom la yoon sant sëriñ bi sant ko également ah ñu xool mm-hmm. agent yi liggéey par rapport ak volume de travail bi mm-hmm. comme li ma la wax ni mu toll tey tey ma jël exemple Touba bi ma xam ba tey euh, officier yi daanaka daanaka ñett ba ñeent mën nañ bari mais signature yi li may wax nag askan bi ñu may dégg su amul nañ dugg ci liñ bi ne président ah ñun gisuñu loolu lee lañ gis mhm. man d'accord naa loolu sa waxtaan la mhm. ñett ba ñeent ñoo koy ñooy signé ñett ba ñeent ñooñu sax foofu laa ñëw ñett ba ñett ba ñeent ñooñu sax juróom fukki junni ba ñeent ñooñu léegi-léegi sax bis ñëw damay <coughs> wax it je parle sous le contrôle de la population askan baa may dégg ñu bis ba ñëw sax kenn na fay des war a signé donc léegi da lenteur ñu noonu déjà li nga doon laaj léegi benn benn benn benn yeexaay mhm. benn difficulté ci yeexaay baa ngi noonu pour pour tontu sa laaj mhm. bañ ko génn pour gaaw a jot kayit comme mhm. comme ñu war a signé bëriwuñu waaw buñu baree sax ñu bëri duñ ñëw léeg-léeg benn fay nekk waaw benn boobu bëgg signé ci ab bis deux cent wala trois cent kon yeexaay bi déjà benn explication yi noonu kenn mu bokk ci leneen moom ma fa des am ba ca topp ba ca topp ba ca topp benn yeexaay ko mhm. di waral ba ca topp wax nañ ko mhm. nga xam ne yow mille registre ngay consommer minimum par année junni mais booy jël engagement di jënd xoolal kon lu am solo xam nga année bi si par la waaw six mois yu njëkk yi mhm. da war nga am cinq cent registre hmm? waaw mois yi ci nga am cinq donc sa engagement ma moo man la gérer c'est anticiper. waaw booy engagé sa budget parce que mm-hmm. état budget lay fonctionné. du affaire bu baana mm-hmm. donc tey budget la ñuy voté ñoom. mairie comme tribunal ak feneen. Mm-hmm. donc man ñëwoo ñemewoo ñëw tribunal man le papier la manqué. aw ma fit boobu xalaatuma ko. j'ai un kii boo xamante ne ni comme tout tout dans tous les services benn armoire wala ay armoire yoo xam damay jël sama engagement engagé jënd sama. c'est que comme li ma xam naa li may li may à peu près li may may li may li may produire hmm. ma def sama engagement jënd samay papier samay cartouche encre samay nangam bic nangam nangam donc heure bu jeexee ci greffier bi le greffier il m'appelle wala mu ñëw ba ci man dama président soxlaa papier du ma ne ko mu ko jeex na xalaatu ma hmm. encre bi jeex na ma jox ko bu fekkee dafa jeex rapidement on appelle le fournisseur il vient rapidement il donne de l'encre li may wax également ñu ngi may dégg amul xaar donc fi également pareil c'est un service comme tous les services hmm. donc boo xamee ne ci consomme mille registres par an mais gestion budget bi tu anticipes les engagements semestre bi cinq cent la nga jënd cinq cent wala six cent toog teg ci dara wala cinq cent cinquante le temps beneen beneen semestre bi di dugg bu dee ci ñun quoi beneen engagement bi le temps cinq cent cinquante yi jeex sax sa sa sa xaalis dugg nga mën a jëndaat ñoom également pareil donc tey ki quand on parle de rupture de registre je suis pas d'accord jaaduwut tey jaaduwut suba warul jeex warul jeex donc wax naa ñaari lenteur benn bi ñiy signé taxu leen a bari te it léeg-léegi ñëpp du ñëw mhm. ñaareel ba registre parfois day day beneen lenteur bi bu ma ko tuddee sax lenteur blocage laa koy tudd blocage moo gën a fort lenteur danga ko wax léegi ah. mooy déposer xaar weer ñaari weer li koy waral ba tey bokk na ci organisation interbi la tey ji Touba Mbàkke moom rek nañ seen problème mhm. je fais une comparaison nag mais pas négative mhm. problème wujjee waaw parce que maa yilif ñaari communes yëpp ci waa en tant que tribunal waaw te ñëpp nag sama njaboot lañ mhm. mais damay def étude comparative mhm. parce que nag bala ngaa jéggaani boo amee loola jege foofu nga jël exemple Mbàkke tey boo fa demee dafa am heure boo xamante ne nii ci la ñuy déposé am heure bu ñuy arrêté dépôt te service yu bari ci àddina ay Dakar ak feneen foo dem waaye Mbàkke laa ñu arrêté donc suñu xasee arrêté daal ne telle heure 17 heures ou 16 lañuy la ñuy def retrayer euh, mhm. maanaam ci la ñuy jël si kayit donc suñu déposé ba arrêté dañuy tëj seen box yi mhm. duy tëj dañuy fermé wu ci biir mhm. donc loolu daf lay permettre doo juum ci li ngay bind kenn du la cim di jox ma fii defal ma fii man la diw sama diw moo ma boole yow sëñ diw moo ñu boole sama bàjjen moo ñu boole dafa am nga transcrire à te reposer kii signé également xam na heure bi nga xamante ne nii moo tax organisation baax ci àddina mhm. xam na heure bi nga xamante ne nii ñoom ci la ñuy pare pour jox ko mu signé mhm. mu ñëw wala ñooñu ñëw signataire yooyu ñu war a signé mhm. ñëw signé waa ji déposé woon ba onze heures jot mu ñibbi it dafa toog di yendu di xiif ak mar parce que xam na heure bi muy jël si pour jël si kayitam ça va lui permettre d'aller vaquer à ses occupations autres moo xam marché lay jëm moo xam day dem feneen day faju ba seize heures jot wala dix-sept heures selon règlement intérieur bi nga xam institution moom la xaate mu ñëw jël si Touba loolu amu fi donc tey boo fi ñëwee bu la neexoon nga dem léegi te yéen da fay dem. Mhm. dugal ci ol bi comme marché. waaw yuuxu yi coow li diw lañ ma booleel ku ne di surxal kayit. Mhm. ku ne di loola mais chamboulement boobu mais liggéey bu baax mënu fa am. liggéey bu am bu correct mënu fa mënu fa yomb. Mhm. liggéey bu am rigueur mënu fa yomb. kon problème organisation daal. merci moo tax ma la blocage laa ko tuddee dama de lenteur la bii blocage la. je pèse mes mots bu ci nekk dama ko jox continue donc blocage boobu nag déjà am na bu ci lu ci garaawaat mooy tey man hmm. man na am benn cas sama doom wala sama mbokk man xam nañ ma hmm. yow xam nañ la man nga dem ñu defal mais Moussa Ndiaye wala Aïda Seck mi nga xam xamu fa kenn hmm. su ñëwee tey bëgg a déposer kan lay jox léeg nga dem ci kenn jox ko mu a la joxal kër. joxal kër parce hmm. que ah man naa am président nee na bu kenn rombati cinq cent compaluñ ko dara. Hmm. mun la joxal kër nga dem ci kër kenn la damaa bari la joxal kër. Hmm. nga dem ci kër nga wër bu mujj ñibbi. leer bi may ñëw am na ko ne ma am na ku masa daal dafa war a kayitam ba kayitam bëri la. accouchement ba mu yoroon. da ko wërale ba mujj reer parce que heure bu ñëwee ñu ne ko demal tey suba kee moo war a def kee moo war a def si yaay une supposons ñu am cent ci journée bi. Mm-hmm. y a dix agent cent mm-hmm. divisé par dix yaakaar naa dix la. waaw ku ci nekk am dix. Mm-hmm. ku ci ku ci nekk ñu xam dix yi ñu la jox. donc ay de sekk mi xamul kenn. waaw mais kenn dootu ko wër-wërlu dootu am blocage. ta bu ñëwee huit heures ba onze heures rek am na droit déposer. donc business boobu. waaw ak laqarti boobu dootul am. lu ñuy tëj lu ñuy tëj la. robinet buy tëj la waaw ah, day tëj donc moo tax ma ne la li nga laaj dañ ma ko yóbbante wax ma ko jàmbat ko far ñu yóbbante wàll ko nga wax ma ko kon jàpp naa ne ci mm. tënk lenteur yooyu daal nga wax ah. ak ñàkk jot teel a jot sa këyit mm-hmm. bu ñu saafaraa problème registre yi manqué yokk agent yi nga xamante ne nii ñooy signé te wax leen nag ñuy ñëw heure bi ñu war a ñëw pour signer moo xam heure bi ñu war a fixé ci ci seen règlement mm-hmm. ñu nekk faral ñett ba ñeent ba juróom mën a signé mm-hmm. def organisation bi ma la wax. Mhm. fii ak un deux mois ñu essayé ko xool ba xam. xool ba xam ne àddina lépp ay projet la. Ah. boo defee dara di nga boo ko pratiquer di nga xam. Mhm. baax na baaxul loo cay améliorer loo cay wàññi loo cay yokk. Mhm. ak keroog ngay am li nga bëgg il faut une organisation interne au niveau de la commune de Touba particulièrement parce que moom bougé nañ ci commencé nañ tuuti bougé nañ ci Mbacke xam naa incha allah danañ fa ñëw ndax mm. foofu itam waaw ñoom mm. ñuy doog a dat yéen a ngi ci UCAB FM 103 point 5 kaddu gi bawoo ci ndaam seen émission bi di li ñuy waxtaane tey spécialement nag ñu dalal monsieur Cheikh moom mooy euh, moom la dalal fii tey eh, di waxtaan ci wàllu eh, këyit doon loo xam ne lu askan wi soxla la eh, président leneen loo xam ne itam jaaxal na mbokk yu bëri bëri muy erreur yi am ci këyit yi ndax léeg-léegi man ma am sama benn këyitu juddu am ci sama carte am ci leneen demaat bëgg koo yeesalaat ñu ne ma numéro bi nekku fii wala keneen am na ci numéro wala yenn genre erreur yooyu lan moo koy waral ak ki mu dal lan mooy pexeem. waaw loolu mën nañ ne moo nekkoon le nœud gordien cest Euh, xolu waxtaan bi mm-hmm. ndax moo dal élèves yi tey mm-hmm. taxoon sax ma gën a fa euh, sawar ci émission bi mm-hmm. donte liñ ci liñ fi liñ fi njëkk wax lépp lu am solo la euh, dañ ma signalé semaine bi yëpp ne ay doomi Tuubaa suñuy doom waaw ñun ñëpp borom njaboot lañ macha allah xale yu mën a jàng nag boo demee lycée de Mbacké nga dem école Badiane May ah. je fais pas de publicité waaw mais ci établissement scolaire yoo jël rek mhm. doomu Touba wax dëgg yàlla mhm. euh, ay moyen dix-huit la am ci ay série scientifique ñu mhm. jaaxal ñëpp tey xale yooyu macha allah jàmbaare lool am concours yu ubbi benn bi mooy lycée d'excellence bi nekk euh, fii ci Njaareem Jurbel xale yi bëgg ko lool mu am encadrement baax bu fay am à l'interne yeneen yi nekk Dakar ak feneen ak feneen mm. waaye bi ñu ci gën a ñor te jegeñu mooy lycée d'excellence bi mm-hmm. donc ñu informé ma barki démb ay parents d'élèves ak kuréel la mm-hmm. ko borom njaboot lañ mm-hmm. ne ah ñoom kat seen doom yi dañu réussir réunir maanaam dajale nañ conditions yi ñu doon laaj yëpp pour mën a dem ci concours bi waaw léegi nag bu ñu déposé ñu ngi koy jaar IEF inspection donc de l'éducation Euh, et de la formation. bi nekk Mbacké. Mm. waaw léegi fa la ñuy def dépôt yi ñooñu jaarale ko par voie hiérarchique. Mm-hmm. maanaam IA inspection d'académie bi bi nekk Ndiarème. Mm-hmm. ñooñu envoyé ko ministère de l'éducation. wala ci examen et concours ba fa nekk daal ci bureau ya fa nekk ña nga xam ñooy saytu loola. Mm-hmm. xool candidature yi. léegi nag ci seen mbetteel ñoom mu rëy dañu rejeté seen ay xale yu bari. Euh, wax nag day leer ba fii ma lay wax. man gisuma papier. du mm-hmm. buñ ma jox du parents yi buñ ma jox mm-hmm. bu wane motif mm-hmm. sabab bi tax ñu rejeté xale yi gisoo kayit yow ba tey waaw papier la wax maanaam bana lettre boo xam dafa bàyyi ko ci kilifa yooyu ca Dakar ne lii ak lii moo tax ñu rejeté xale waaye ñoom liñ ma wax ñoom ñi dem parents yi dem ba toog egg seen bopp te bureau ya waaw seen nopp ak ñooña waaw ne leen ay jugement de naissance mhm. lañu ñu amee mhm. loolu nag daf may permettre comme nous sommes dans un état de droit dañu nekk ci réew boo xam dëkku yoon la état de droit mooy réewu yoon mhm. réewu yoon mooy ay loi ak i charte ñoo tënk dëkk bi te charte yooyu mooy état bi ak i service am muy muy bi gën a tuuti daf cee war a tënku dañuy wax ne nul n'est au-dessus de la loi état ak askan bi ki gën a tuuti. Hmm. dañuy tënk ci loolu. Hmm. wax naa léegi ne la la loi de 1972. code de la famille. Hmm. ba fii ma lay wax amul tribunal ci Sénégal départemental bu ko wutul àttewoo kenn soppeeku ci virgule. kon ba tey kay mooy dox. loi boobu nag moom moo moo ne ci article cinquante ba cinquante et un cinquante deux cinquante trois. wax naa ko léegi ku judd nañ la déclaré. kon déclaration de naissance. kayit boobu ñuy wax déclaration. loi boobu. article yooyu. Mhm. ñoo ko daganal niñ daganale déclaration nag. ci même loi bi noonu la même loi bi ci biiram. Mhm. ci article quatre vingt sept quatre vingt huit quatre vingt neuf et suivant yi ci topp noonu la daganale jugement. Mhm. kon pourquoi ñu bëgg gënale déclaration ak jugement dañ bokk nday ju leen jur muy benn benn coow. mënuñ ci benn benn de loi article yu dédante ñu ne ku am bii baax na waaye ko am bii baax na. ñu bëgg na bii rek kay baax léegi bii baaxul te dañuy jàngale ci droit première année hmm. ne il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas bu ràññale mukk fu loi ràññale wut hmm. kon ku bëgg a ràññale déclaration ak jugement nga baal ma déggoo loi wala yaa ngi koy jalgati jugement bi daxaa peut-être li ñuy daw mooy yokkum at yeeg wàññi foofu dinaa fa foofu dinaa fa ñëw moo tax relance bi baax hmm. donc relance bi baax na dialogue bi sama dafa bay permettre ma ma ma ma teg. Mhm. donc déjà damay doon def ci base bi rek damay tàmbali ci base bi. Ah, mooy déjà ñoo bokk benn loi. Mhm. même article yi. ñoo ah. nekk ci benn code bi. Mhm. donc moom moo ne déclaration. baax na li déclaration moo daganal jugement. merci ba article cinquante ak yi ko topp. bi quatre vingt sept ak yi ko léegi nag ñu ne ma ñoom ñoom liñ foog ñoom. ba tey damay wax foog. parce que indee gu ma këyit ba tey. gisoo ko këyit ma la jox joxuñ ma këyit. parce que nag. ci ci këyit ngay ñoom ñu ne jugement yooyu te ñun ñu ëpp ko wax nag. Mm-hmm. ñu ne yooyu moo ko waral. waaw ah. suñu jàpp ne jugement wàññi at la comme ni nga ko waxe mm-hmm. man je dis le contraire. Mm-hmm. dama koy wedd ci saa si. avec des nuances nag. damay relativiser. man tey sama tribunal am naa ay dossiers yoo xam jugement la jaar. maanaam xale bi weesu na at déclaré wuñ ko. waaw parents yi wut non inscription ci mairie bi. def dossier indi. mais dossier boobu tey bu ma la ko wanoon hmm. wala ñoom ñooñu bindoon ma lettre ne ma kaaw élève bii kat hmm. dañoo gis na jugement la am hmm. yow mii président tribunal bi nga xam ne yaa yilif Mbacké Touba te jugement bi jaar ci yow wala sa nattango bi la fi jiitu woon xoolal ñu ba xam xale bi daa wàññi wala wàññiwut déjà loolu ñun suñu ay fond de dossier ñuy sukkandiku day am li gën a garaaw certificat d'accouchement bi. mooy mooy biñ jëlee woon hôpital bi muy judd. Hmm. kon fa xale bi wàññee. Hmm. donc accouchement bi dañ ko ci def ci biir li ci ëpp laa wax nag. du hmm. lépp moo tax ma ne damay relativiser. accouchement boobu da ciy nekk su ci nekkee juge bi la nekk rek lay def. kon déjà kooku wàññiwul at. léegi nag am na ci ñoo xam effectivement. dañuy profité ci jugement boobu. de maire yi bu demee. ne sama doom nangam la judd wàññi at bi mhm. indi ko bu ñëwee juge bi man na ko atte xool xale bi te xam nga xale yi léegi ni ñuy màggee mhm. compliqué di tuuti xale bu juddu mhm. tiim la ci kaw léegi pour nga xam atu xale sax jafe na juge bi ci njortam ak li mu gis ci enquête bi ak li ko parents témoins yi wax mu sukkandiku ci ne ah gëm naa ne nangam la judd donc pour wax la ne la kon a priori nit mënul toog ci benn bureau. Mm-hmm. gis ab jugement rek nee naa ko xotti parce que xale bi daa wàññi parce que nee naa la léegi am na jugement xam day ànd ak accouchement bi. Mm-hmm. day ànd ak accouchement bi kon kooku wàññiwul at moo tax man ba pare li gën a garaaw li gën a garaaw. waaw juridique. un jugement qui a été rendu par un juge en bonne et à tout le monde sauf sauf mm-hmm. si on on fait des voies de recours contre ce amul autorité tey boo xam ne ni administrative mhm. ab attekat génn ab atte mhm. nee la lii maa ko atte def ko waaw jëfandikoo ko nga teg ko fe kooku également c'est en violation ku ko def da nga jalgati mhm. jugement nag nit ki bu ko attee ku ci d'accord man def appel ñu dem cour d'appel dem cour suprême mooy voie de yi ma wax waaye toog sa bureau kese ma indi extrait boo xam ci jugement lañ ko defaree nga ne non la du ma ko jël hmm. kooku moom jaaduwut te it du loo xamante ne nii sukkandiku nañ ko ci loi man nag ci loi laay wax ci article laay wax moom laa jàng képp ko xam ne ni daal yaa ngi gis jugement extrait bu ñu defee jugement hmm. systématiquement rek nga rejeté ko amu mënoo ma wax benn base légal boo koy teg hmm. benn base légale rek lañ am muy loi de soixante douze bi amaatul beneen loi bu ko soppi wala bu ko didi kon leneen luñ ko ci sukkandiku xëy na kon lu ay nit waxtaane ci seen réglement intérieur la mm-hmm. wala seen ay dogalu kilifa mm-hmm. te amul dogalu kilifa bu mën a violer loi y a ce qu'on appelle mm-hmm. la hiérarchie des normes juridiques maanaam sart euh, yi dañoo ëppante doole si rapidement ci gàttal rek constitution moo tiim loi organique topp ci ordinaire top ci décret topp ci réglement topp ci ba ci suuf ki gën a suufee mënut a jalgati ki ki ki ki ko ëpp doole. donc tey. waaw lii nii leen rek moo ko mënoon soppi. Mhm. ab loi bu tolloog loi bi. ñëw soppi lii. ñëw soppi waaye tant que boobu amul. amul kenn sañul dàq. Mhm. kayitu juddu bu am jugement. parce que ci juge la jaar. Mhm. mu àtte ko te àtte àtte bi juge bi wax naa ko léegi. dañ koy jëfandikoo sauf nga jaar fa yoon ne. boo ko bëggee weddi fa ngay jaar. tant que jaaroo ci yoon woow nag amoon pas weddi. tey bu tëgg ci kaawu. bu bu rejet yii may dégg te. amagoo ba ci kayit. waaw moom waaye loolu laa bëggoon bu fekkente ni si li dégg nii te amagoo ci firnde bu fekkoon am na tey mu dal leen maa ngi fàttali ne concours boobu ngay wax muy lycée d'excellence bi ñu ngi ko ubbi woon dépôt yi euh, du 27 juillet à 8 heures euh, ba ci 9 euh, septembre 2022 à 15 heures kon lool romb na ki nga xam ne xëy na peut-être dal na ko ko instant bii nii ndax am na beneen. voie de recours boo xam ne euh, war na ko mën a defaat ngir ñu mën ko <laughs> waaw waaw waaw xam nga xam nga àddina wax naa ko a réew mi waaw lépp dañ ko organiser ak ay loi waaw euh, barki dem rek mën naa joxe benn exemple ndaw hmm. euh, ENAM gi mi ngi ci presse bi du information boo man maa ko joxe waaw ENAM gii hmm. école administration nationale bi hmm. am na concours bu ñu doon ubbi am ñu déposé woon ñu am ay jafe-jafe bu ñu rejeté mais biñ defee seen recours maanaam jël yëf yi coow ko cour suprême waa Cour suprême dañu wax waa waa ENAM ñu yoroon concours bi ne leen jëlaat leen lii parce que lii ak lii nekkul ci dëgg kon ci gàttal. waaw réew mi loo fi jooytu am na foo koy. jooytu kon mu dal daal mën nañu dem ci yoon. waaw maanaam. Mm-hmm. koo citoyen boo gis rek. yoon may na ko. Mm-hmm. amee problème mu jooytoo ko fa mu ko war a jooytoo. Mm-hmm. mais faaw am na fu koy jooytoo. loolu lu am solo la leneen loo xam ne xëy na ñu ngi koy wax euh, xam naa Mouhamadou Moustapha Mbaye mooy correspondant Dakar Actu moom moom bu ma toppoon laaj bi daanaka mën naa jël émission yëpp euh, moom nag moom ma nga ca laaj bu njëkk ba mu ne qu'est-ce qui peut le fait qu'une dispose d'un extrait de naissance et que ce document ne puisse pas être délivré euh, une nouvelle fois faute d'inscri d'inscription sur le registre maanaam nit ki nga xam ne euh, am na benn extrait de naissance waaye mu bëggaat ko ñu ne mënoo ko am ndax binduwul ci registre ba ci registre ba. loolu mën a nekkee loolu li koy waral ñaar ñaar rapidement ñaar la. Mhm. wax léegi fa problème mu ma ci ñëwaat. Mhm. fi muy jaar ak ban registre la ñu war a bind ak yëpp. waaw léegi yooyu nag. Mhm. agent état civil yi ñoo koy gérer. waaw léegi nag wax dëgg yàlla. ay jamono ñetti ñetti situation la ñett la. ay jamono. Mbacké je prends Mbacké. ba tey Touba xam ñaar ñëpp ñoo ñoo yem même situation. arrondissement bi taw arrondissement. da nga daan ñëw déclarer sa doom. Mhm. wax naa ko léegi nit ñi benn bind ko ci ay kayit waaw kaye. Mhm. kaye deux cent pages. Mhm. mais kaye bi day xooteeku du registre. day xooteeku donc suba boo ñëwaatee. ne nañ ma délivrer. waaw nañ ma délivrer. léegi fu ñuy sukkandiku pour délivrer la. ndax defuñ ko ci registre bi état bi waxoon. mooy benn situation. beneen bi ay jamono yi nee nañ ma bu dee mbàkkee registre amu fa maanaam daaw utiliser registre. da ngaa ñëw rek ñu defal la imprimer signer la ko jox la kon amul nday. kayit yu amul ndey mhm. buñ doxee ba ku mel ni benn président du ma wax man waaye président boo xam am na rigueur waaw ñëw ni a ah, yoon nee na daal lépp lu ngeen di délivré na ngeen ko sukkandiku ci registre loolu yoon wax ah yàlla dogal daawoo am registre mhm. kon kooka bu ñëwaatee mhm. mais mënoo ko jox kayit muy deuxième situation beneen bi également da ngay koo xam ne ñëw di déclarer doom fekk na fa registre au lieu que agent bi bindal ko déclaration ci registre hmm. am nañu ay imprimé yoo dañ ko tiré teg moom la ñuy remplir mooy extrait yi mais bala nga ko remplir da nga ko war a ba pare hmm. def ko ci extrait bi door a jox suñu signé ji hmm. mais am na ñoo xam ne ni ay jamono dañ daan rempli ci extrait bi kese kese jël numéro boo xam ne ni doomu keneen a ko moom daal la koy jox yow soloom ji di ci jàng rek yaakaar ne lu baax la am fekk fictif la maanaam nday ja boo ko ubbi woon tey doomi keneen a cay nekk loolu troisième hypothèse la donc loolu mooy waral euh, souvent nga ñëw. waaw di yeesalaat fekk mooy li ma la wax ku am rigueur ñëw fi. Mhm. ne texte yi laay appliqué ah ngi njaaj boobu mënatul am. Mhm. wala équipe bi changé beneen maire gagné ka nga fa daan fekk mu di la defal ndànk ci suuf nekkatu fa. Mhm. keneen nekk fa nga ñëw mun la ah xool naa réussite kër waaye sa doom nekku ci. donc yoon mayu ma kon. ma defal la kayit bi. bi ci ëppaat solo nag te waral coow waaw mooy destruction ou détérioration des registres. registre bu yàqu wax dëgg yàlla musiba la boo jëlee Touba. waaw man bi may door a ñëw. Hmm. booba juste la ñuy def communalisation bi ci lañ door a bàyyi communauté rurale yi def commune. Hmm. ci bind benn correspondance sous préfet bi fi nekkoon ci ndaam ne ko def ma defal ma inventaire état des lieux. Hmm. lépp lu fiy registre bis ni que tey seen yoon nekkatu ci yéen sous préfecture état nee na commune mooy gérer. waaw ci communalisation bi. kon roñal lépp nga yóbbu ko mairie bu Mbacké kii Touba effectivement mu def inventaire bi j'ai le PV mhm. ne lii daal moo fi des ci luñ mën a jariñoo xaaj ba yëpp na tojoon na ca arrondissement bu njëkk ba mu yàqu complètement li rawale moo nekk fii ak mbalit mbalit moom it daaw jeg ñu bari dégg nañ ko wala xam nañ ko waaw man ak ñi ma ko seqal fexe naa ba indi fi ay archiviste yoo xam Dakar laa leen jëlee bu dee Touba ci ndigalu sëñ Muntaxa sax la jaar mu boole ma euh, waa isbu tarxiya sëriñ Youssou Diop maa ngi koy nuyu de passage ñu am Pastef ñoo yoral xale yi restauration bi durant jour yi ñu añ reer ndekk yëpp ci ndigal sëriñ Mountakha monsieur le maire également logé leen fii ci Mbàkke Sedaf mbalit moom may tuddee mbalit waaw mooy lu toj lu yàquli waaw xale yi trier ko trier ko photo yi sax jaaroon internet bi daaw jéeg donc ñu trier ko man mii maa fi indi xale ñu trier ko ba lañ ca mën a rawale rawale ko ñu def ko ci la jees nag moom wax dëgg je suis désolé mais kenn mënu ko jëriñoo avec des photos ma defaat même procédure yow ma Tuubaa si ñaari mhm. saisir de passage également di ko di ko nuyu mhm. moom ma wax ko situation bi fii wax dëgg yàlla mu ubbi loxoom mhm. ñu woowaat xale yi logé waat leen siraf ñu liggéeyaat loola Mbàkke rawale lañ mën a rawale ba desaat foofu loo xam maa ngi jégglu mais mëne su ko jariñoo léegi nag ñi bokk ci mbalit moomu waaw nga ne mënuñ kenn mënu koo jariñoo waaw leen li jinax yee lekk hmm. leen yi taw bi la yenn yi sàggante hmm. loolu nag ku ca bokk je suis désolé mais nu ñuy nu ñuy fexee ba xam ne lii lañ ci bindoon ak lii yaa moom nu ñuy fexee ba kayit bi ñu indil yow photocopie bi nga yor hmm. nu muy wóoree sax numéro bi yaa ko moom wax naa léegi ne du moo day kon man président tribunal wala man agent état civil soo ma indil aw këyit te gisuma registre bu ba nday ji gisuma registre bu mag bi mais man su ma la nee yaa ko moom damaa ñeme hmm. parce que mënoon naa ko ubbi fekk ci doomu keneen waaw kon moo tax nit ñi nañ comprendre ne hmm. tant que gisuñu registre joxe këyit erreur la hmm. parce que boo ko joxee waaw soit man nga ko joxe yàlla dool kan ko jox moo ko moom yàlla xam mais man nga ko joxe également fekk doomu jàmbur nga joxe numéro suba koo ko ñëw am problème la preuve waaw bërki démb rek ah, saisir nañ ma ci au niveau de la DAF fa ñuy defaree carte d'identité nationale yi ñoom également dañu am problème boobu dañuy dem tey jii man ma ñëw ci maire bi ne ma maa moom extrait bii mhm. gisoo registre mhm. mais nga gëm ma defal ma renouvellement ma dem déposer ci carte fekk moom ma ko mhm. defal ma carte ba pare ginnaaw suba cheikh mi moom registre bi mi ne mi moom numéro bi door a ñëw nag bi mu nga ubbi rek wala nga nga xool far gis ko Cheikh kat yaa moom jox ko mm-hmm. Cheikh dem daaf wala police bi di déposé ñu ne ko non non déjà am na ko am quarante mm-hmm. mais Cheikh moom moom mm-hmm. kon toj nañ ko Cheikh day obligé ñëwaat annulé li moom te mu baax ne se ne serait que pour ab quarante ala ko moo moom moo tax nag il faut que ñu comprendre agent yi ak tribunal que ni bu ñu mënul bu ñu gisul registre nag wax dëgg yàlla mu ñu ñu hasardé di defaral ak xool nit ak bëtam yu rafet. Mm-hmm. wala yërëm ko rek tax ñu jël loo xam ne ni ëllëg jàmbur day ñëw. bi ko moom mm-hmm. ñëw ne lu tax ngeen joxe sama numéro bi man maa ko moom la preuve dem naa daaf ñu ne ma diw am na ci te maa ngi nii mënu maa am qu'est-ce que je vais faire def naa ko deux fois ci semaine bi j'ai pris mon téléphone. Mm-hmm. ma woote daaf pour décanter situation. donc loolu également dañ ci comprendre agent yi moo tax agent yi war a góorgóorlu. wax dëg yàlla bàyyi di jël numéro jàmbur yi di ko joxe. di saytu registre yi bu baax bañ muy xotteeku loolu sax les maires lay lancé appel bi les maire des communes particulièrement le maire de Touba maa ngi koy lancé appel bi au nom de la population di ko waxal ñoom nañu jàppale bu baax ci archives yi mhm. parce que am na ñaari salle archives yu nekk biir commune de Touba benn bi de passage maa ngi koy gërëmaat ci archiviste yi mu jël parce que daaw bi ma ñëwee maa ko wax ne ko archiviste mënul ñàkk ci ay këyit. Mhm. wax dëgg yàlla il a fait signer des ñaar ba ñett xaw ma ñeent daal mais minimum. Mhm. mat na ñett ñoo xam ne ñoo leen di dencal ay archiviste lañ de métier. Mhm. yoo xam ne rek lañ jàng. mu jël leen wax dëgg yàlla signer leen contrat indi leen ci mairie bi. classé nañ benn salle bi ba mu mat. beneen salle bi ñànk mais li ci ëpp solo dafa am benn salle bu mag a mag a de réunion bu mag. boo xam maa ca kaw a kaw mm-hmm. moom mi may dégg xam na li may wax ña fa mm-hmm. nekk xam nañ ko mm-hmm. salle boobu wax naa ko ne ko suñ ko defaree ay étagère on regroupe tout ce qui existe def ko ci biir def ci ventilation clim bu baax ndax papier dafay soxla benn lugaay benn seddaay bu tane buñ ko defee archiviste yi féete foofa cool yi dana wàññeeku beneen bi également maa ngi koy lancé waat di ko ko waxaat di ko wax ci turu askan bi am na appareil yi ñuy wax numériseur loolu également àddina moo dox. waaw jinax yi ñu dëkkal. ak taw bi mooy informatisation bi ci laa doon. merci day yàqu. waaw numériseurs yooyu également. waaw suñ ko amoon ñaar ci Touba ñaar ci Mbacké. heure bu ñu transcrire ci registre ba pare. Mhm. jël numériseurs yi mu mhm. photographier registre bi. Mhm. donc danañ ko am papier. am ko format électronique. bu boobaa papier bi bu xawee yàqu. ndax day taw tey wala jinax. mais numériseur bi am na base de données bo am na ko créé na ko. donc bu ñu demaatee foofa. Hmm. danañ fa fekk kayitu nit ki. donc loolu également askan bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan maire. Ah, parce que pas sax parce que Touba ñuy wax programme boobu noonu. effectif na wala Touba. Hmm? informatisation bi parce que déggoon nañ maire ne lu bëri defar nañ ko ci. waaw loolu état état du Sénégal. moo am benn programme bu yaatu. Hmm. pour informatiser. te wax dëgg yàlla réunion ñi am Dakar. ñoom ñi sax ña ngi fay dem ñeneen di fa dem ñu ngi waxtaan. mais informatisation bi ñu doon wax c'est c'est au niveau local. maanaam wut ay machine ay ordinateur di ko saisir mais man li may wax moo gën a xóot loolu man base de données laa bëgg ñu créer ko c'est-à-dire ba pare doo saisir yem ci mais dañuy numériser papier bi ci boppam registre bi ni mu mel moom la appareil bi photo dugal ko ci biiram nga xam ne léegi déjà c'est-à-dire du du diw moo ko saisir dugal moo falsifié hmm. parce que machine également man man naa ñëw dugal ko ma neex mën naa ñëw man nga neexal ma ma dugal ko ma neex par contre boo photographier photo c'est fidèle dafa fidèle mhm. maanaam li li mu photo rek lay gis mhm. loolu mooy numériseur appareil la donc loolu également maire ñi ngi koy wax ni ko euh, askan bi sonn nañ ci kayit yi toj ak mhm. yàqu donc moom mi yàlla dogal bu nekk ci bopp dëkk bi sëriñ bi wóoru ko teg ko fi askan bi ci sama kàddu ñoom ñu koy soññaat parce que du lu ñuy ñaan luñ la da nga moom doo ko ñaan askan bi ñu ngi koy soññ ci mu góorgóorlu ci numériseur yooyu wutal ko waa mairie bi ak agent yi mhm. salle ba ca kaw également mu équipé ko en rayon en fer rayon en fer mhm. yu dëgër yu attal registre yi ñu regrouper registre yëpp tey jii boo demoon léegi mairie Touba mhm. registre da koy fekk ci tànku agent yi ci tànk yi ci seen tànk yi ñu ngi may dégg loolu si ça continue waaw yàqu bi ñu wax du saafara am nañ machine fii wala amul am nañ machine Touba ñaata am na ay quelques machines mais peut-être wàññu ma ko am nañ machine mais registre ci tànk yi nekk risque bu ñuy teg ay tànk nag xottiku mënu ci ñàkk hmm. tasaaroo mënu ci ñàkk hmm. te waral mooy dañu amatul espace agent yi du seen problème de hmm. amatuñ fu dugal kon saal ba ca kaw rëy lool mën a dajale lu rette dara nekku fa nañ ko équipe def ko saal archive def ci ay rayon yóbbu fa registre askanu Tuubaa yi balaa musiba gën a am alesana maa ngi wax balaa musiba gën a. dañoo am possibilité décentraliser état civil bi yóbbu ko ci yenn gox wala loolu ñoom. sañ waaw loolu également c'est fondamental parce que wax nañ ko léegi bi ñuy tàmbali dama ne la Touba bu Dakar rombee. waaw mu ëpp askan ci àddina. Mhm. kon benn centre. waaw ñetti agent fukki agent ñaar fukki agent attanuñ ko loolu waral na yeexaay bi nga doon wax kon day tontuwaat loola. Mhm. bu fekkee askan bu toll noonu moo fay yeewoo. mille registres par année. Mhm. nga bëgg fukki agent wala fukki agent ak juróom. di ko transcrire ñoom kese. kon duñu am weekend duñ noppal te ay nit la mm-hmm. donc foog également Touba comme c'est un village mm-hmm. ñu xool village yi gën a mag waaw ñu créé fa ay centre secondaire mm-hmm. déjà engorgé maanaam centre bu mag bi mën a noyyi parce que je donne un exemple boo jëloon Dakar tey def fa ñetti centre nga xool kon musiba pourquoi kon Dakar ñetti centre mënu ko régler yow Touba bi topp ci Dakar ga bëgg benn centre régler ko mënul nekk kon lu mel ni Darou Khoudoss def ma promotion benn benn quartier du ma sax waaye quartier yu mag yi daal yéen a ko gën a xam ak village yu mag yi mhm. loolu également maire mhm. waxtaan nañ ci ak moom mhm. du ci sori parce que mi ngi liggéey li muy liggéey ci suuf mais waxtaan nañ ci ak moom ak ñam ko seqal ak commission bi ma la wax commission état civil bi li ma mën a wax c'est en bonne voie incha allahu rabbi maanaam balaa yàgg centre yooyu dana créé wu. waaw incha allah. Mhm. ki dëkk daal Xudóos. ak la ko jiite yem foofa. Mhm. ka dëkk Ndaamaatu ak feneen ka dëkk feneen ak feneen du ma lim quartier xaw ma sax ñoom yan quartier lañ. waaw lañ tànn ndax man du ma meeru dëkk bi. Mhm. du sëriñu dëkk bi. mais quartier bu ci nekk daal dana def benn boo xam. ah dana fexe ba ku naroon a ñëwaat ci commune bi man a yem sa quartier. Mhm. bu ko defee commune bi xaw a noyyi. Mhm. loolu également ci solution yi nga xam ne nii. waaw moo waraloon lenteur yi ñu naan boo déposé am ñaari weer ba ñetti weer. Mhm. xam nga question yi dañuy xaw a day xaw a euh, naa ne ñi ngi jégalu mbokk yi bu baax ndax le temps passe vite. Mm. gaaw na douze heures moo des douze heures jot daanaka temps bi doo doo xam auditeurs yi laaj yi ñu yëpp mun ma ñu teg benn ko ne Moustapha Mbaye deuxième laaj bi sax mi ngi woon eh, ñi bokk numéro benn benn numéro ñaar nit bokk ko. Mm. loolu lu ko expliquer ak eh, ak kii la faute ak kim dal luy solution. wax naa ko léegi. waaw wax naa ko léegi. agent bi yor registre parce que yoon dafa wax ne. bu buñ tàmbalee at mi at mu bees mi. waaw du premier janvier. waaw au trente et un décembre de chaque année. waaw ci la ñuy ubbi registre bi. ki njëkk a ñëw pour ñu bind doomam. mooy am numéro un. numéro deux. numéro trois donc par ordre chronologique la. ba au au soir du 31 décembre. kon ku am ñaari deux naa fekk dugg ñaari trois naa fekk dugg hmm. ñaari quatre donc du na foo ko dégg. waaw bu ñu waxantee dëgg. waaw naa fekk la caaxaan la. pour ci kan caaxaan bi ci kan la. agent bi bind. non amul ma dem te ñëw. Hmm. agent bi yor registre bi. yow yoroo ko man yoruma ko. léegi bu ñu dalee maa kii nu ma nu ma ah, xam baax léegi nag léegi nag nee naa la warut waaye bu amee nag. waaw loi na ko. bu xasee am. man bokk ñi may liggéey. waaw ma amee kaa bi. damay yónnee une lettre. waa mairie. wala ma ne ki mu dal. Mhm. demal ci mairie bi ngeen laaj leen lettre de confirmation. waaw man naa leen ci dikk. parce que am na ku ne ma barki démb. lettre de confirmation dañ ciy laaj huit cent. waaw te nee naa fii léegi deux cent à cinq cent donc maa ngi koy waxaat fii tey. waaw lettre de confirmation day am timbre. waaw nee naa bi kenn du ko jaay timbre rek la. timbre bi mënut kon 800 bi du yoon. jaaduwul ma wax ko fi ci rajo bi waaw en passant. léegi su ma yónnee agent euh, lettre bi wala boroom dem hmm. euh, ki yor registre yi wala officier bu mag bi xool registre bi da hmm. ko nee naa la ñaari numéro warul donc su ko xoolee. kenn rek a fay hmm. may bindal ci lettre bi may tontu. ma président. registre bi nag kenn na nekk Moussa la tudd. sant Diop kon ki yoroon kayitam. ñëw même numéro bi. tudd Abdou Seck. ma ne ko dem annulé ji moomoo ko. kala ko defaloon sama yoon nekku ci plainte ko wala nga xuloo jéeg moom pour wax la ko responsabilité agent yi war nañ gën a góorgóorlu mm-hmm. ndax ki ga xam ne da ko joxoon ab fictif mm-hmm. mu jàng ci ba am bac wala maîtrise mm-hmm. wala moodu moodu bu ci liggéey def ci ay mariage am ak lu ne yaa ngi koy toj donc loolu loolu mooy mooy mooy mooy mbiru doublon yi donc doublon daal bu amee annulation la jëm bala ñu aligné xool kan moom moom ndax man nee naa leen lu baax du ma ko yàq ki moom du ma ko lor kon ki moomut te jaaroon ci neexal. waaw wala ñu nax ko moo xam. waaw it nañ ma baal sama mbokk waa Touba yi. Mhm. loolu benn message bu ma leen di envoyé. tribunal bi service public la. waaw a ko moom. Mhm. dee leen ñëw di déposer. dee leen ñëw di laajte. Mhm. greffier yi nga fa maa nga fa secrétaire nga fa ñu bari nag dañ may bëgg gis. mais it président it chaque jour nga mën ko gis. sinon du ma liggéey. j'ai un courrier. am na lu may liggéey ak samay kilifa. Mhm. ci administration am na ay réunion am na leneen. donc du chaque jour. moo fa nekkul am na ñu la fa nekkal. waaw donc mhm. greffier nga fa ak keneen. Mhm. donc nañuy ñëw. di am la bonne information. mais nañ ma baal dëkk bi. waaw dafa am ñaari responsabilité. am na parent yoo xam dañuy tëdd fi ñu tëdd. waaw taa yi ñëw tribunal wala mairie. gis agent courtier yor seen saag yooyu di wër. foofu laa foofu laa ci dëkk bi. waaw <laughs> fi bari lool nag. ay mag ñu am juróom fukki at juróom benn fukki at ba ci xale bi am trente deux ans lànk bañ a liggéey hmm. yor classeur ci quartier bi ne man man naa lijjanti mariage hmm. nga jox ko cent mille ala ko mariage mille franc la non seulement du la lijjantil mariage bu baax fictif lay doon mais lekk sa xaalis hmm. léegi doo ñëw ba ci maire bi gis Babacar Fall wala nga gis euh, Bamba Fall wala nga gis beneen officier boo xam kilifa la waxuma nag nga romb ko la neex laajte leen ñi lay kar ci bi pour defar nga romb leen nga romb leen dem ba ci bureau yi ay bureau fi am wax naa léegi ne commission état civil Bamba Fall ko yi jëlee am na commission maire teg na commission léegi dem leen ba ci la bonne source maanaam ka war a wax dem leen ci moom mu wax bu leen def ku ngeen romb ci bunt bi ndax ay courtier la ah, ñu ngi ci bunt bi taxaw bunt beeg óol beeg fépp ba ci tribunal be man bi may door a ñëw mais dama fa dàq ñu bari toroxal leen fa mm-hmm. du ma ne nag bàyyi nañ parce que gars yi duñ bàyyi dañuy sëgg rek rombul ñooñu ci bunt beeg ñëpp maa man maa nangam. mënuñu dara ba ci man mii. <laughs> chaque jour nit ne an ma lijjanti le président sama bureau. waaw ah. ña dugg ci ay agent dañ leen di wàññi mu leer. ku ne xam naa président mën naa koo lij mën naa faa lijjanti kayit waxut dëgg. Mhm. xam nañ ma ci dëkk bi laa dëkk. waaye na nit kayit. waaw da nga ñëw déposé. tegu ci leer da nga déposé sama secrétaire. Mhm. mu ñëw ci courrier bi ma traité ko wàcce ko enrôlement. Mhm. donc du problème ay xam diw xam diw. mais laajteel naissance nan laaj def ba am ko mais laaj ko ko xam léegi boo tëddee sa kër yow. Hmm. ah dama taayee dem tribunal ah naaju dafa tàng. ah benn waaye nag bi nekk ci koñ moom nangoo dem. ah foog nga foog mu laaj la dara. jugement kalay moo ma ne la corruption bi. waaw parents yi ci boppam. population bi dañoo bëgg ñoom ku leen ku leen nax. mooy lànk bañ a jóg taayal nañ ma baal dafa am ñu bëgg lu yomb. beneen bi également. waaw mooy agent yooyu ngay wax. waaw ñoom xamuñ ci dara. wax naa leen ko ba tàyyi ku fi lekk xaalis jàmbur ci agent yooyu. waaw te borom am ful la ñëw ba ci man. waaw ne ma diw moo lekk sama xaalis mu leer. Hmm. mu xam ko identifiable. Hmm. ñu man ko identifier. Hmm. agent boobu dañ koy arrêté. moo xam courtier la moo xam keneen la. ju may wax wax naa ko waxati jugement am na ñoo xam dañuy laaj quatre mille cinq mille ba six mille pour defaral kayitu juddu. waaw lool également wax naa ko waxati ko dama koy résumé waat fii. waaw jugement de naissance. waaw. décret bi ko fixé. ay décret la de. fii kenn amul looy laajte amul loi bu teg. 1000 mhm. francs la wax. 1000 francs léegi yooyu bala nga koo fay tribunal nga koy fayee. mais avant loolu xam nga maire ngay jaar. waaw non inscription 300 la. waaw euh, ak 1000 francs tribunal. waaw de 1300. waaw nga ñëwaat mais indi ko fayaat 300 mhm. timbre du la. wala 500 gën ngaa bëri. wala 500. Mhm. waaw kon on arrondit à 500. 500 non inscription transcription muy 1000. waaw plus 1000 yi 2000 1800. donc maximum. waaw tu dois avoir un papier. mais dama la wax léegi boo toogee sa kër nag. waaw jox ko benn waay da nga ko neexal taxi. Mm-hmm. da nga ko mosal da nga ko dugg ci naaj bi. sa mm-hmm. bopp sa bopp yow. Mm-hmm. yor sa oto wala sa taxi. mënoo romb 2000 te amoo papier bi. bu ko ëppee wax ko léegi ñun kilifa yi ñu ngi fi. Bamba Fall mi ngi mairie Babacar mi ngi mairie. man maa tribunal. sama greffier en chef ma nga sama yeneen greffier ña nga fa ñëwal jooytu leen ko ñu remonté information bi ci man on convoque wax ko bàyyiwut nag ah ñu activer les les voies de droit mu jeex avant yi déggoon ngeen coow Mbàkke am na ñu fi jàppoon. Mhm. donc loolu ñun ragaluñ ci dawuñ ci tegguñ suñ tànk ba tey donc ñu ngi fi ñu toog toog fas yéene liggéey teg ñëpp ci yoon jaar ci yoon d'abord teg nit ñi ci yoon ku ko wàcce nag nga woo la yedd la dans un premier temps dëgër ko loolu je l'assume te yàgg naa ko wax dama koy wax di ko wax ba tànk may nekk ci dëkk bi. annulation. waaw ah. annulation yi ñuy coow jamono jii mu bëri lool lan mooy expliquer annulation yi ak itam kan moo war a annuler. annulation bi li ko waral wax naa ko léegi. Hmm. boo bokkee di ñaari numéro. waaw te numéro bi moomoo ko. waaw dañ lay annuler par force. parce que moomoo ko yëfi jàmm nga yor. Hmm. il faut que dëgg dañ koy nangu dañ lay dañuy yàq sa bos. Hmm. ndax moomut. nga ñëw càggante yi amoon ci arrondissement ba ak registré yàqu wax dëgg yàlla. waaw kenn amul preuve que ni moom kayit bi ñu wan yow. te man sañu ma laa jox kayit sans pour autant ma gis preuve que moom muy registré hmm. loolu am na ñaari situation soit boo yàkkamte hmm. dañ lay annuler defaraatal la boo xam dana am registre bu baax buñ bind. Hmm. boo yàkkamtiwul am na commission boo xam ne nii wax naa ko waxati ko. mais dafa nekkul sama loxo. muy commission de reconstitution. commission boobu gouverneur de région. waaw moom moo ko war sam samp mooy jël arrêté bi. Mhm. man nag li nekk sama loxo wax naa ko bëgg dem en réunion. Mhm. bu dee Mbacké ils sont en avance. Mhm. waa Mbacké avec le nouveau maire. jël nañ benn archiviste jamono ci ginnaaw. loolu également it man maa leen wax ne mënut a ñàkk biñ ko jëlee mu ñëw bi mu ñëwee ma sant ko inventaire maanaam na ma defal état des lieux lan moo am problème yan risques ñoo yàq Mbacké yan ñoo xotteeku yan ñoo fa nekkatul. def na liggéey boobu ba mu mucc ay wax dëgg yàlla euh, ci contrôle ku ñuy wax Moustapha Dieng mm-hmm. officier état civil ak Cheikh Mbacke Fall mm-hmm. bi mu pare it jébbal nañ ma document mm-hmm. procureur de la république lañ koy jox buñ ko ko joxee moom mu xool au niveau du greffe régional de Diourbel est-ce que yii nii am na fa registre yu fa des ndax volet 2 yi temps bi moo gàtt mais dañoo war chaque année volet 2 yi nekk fii ñu koy yóbbu foofa loolu mooy permettre bu fi yàqoo ñu mën a xooli feneen mhm. loolu également en passant am na ay difficultés yu ci am mais xaju fi léegi bu procureur xoolee yi fa am mhm. registre yi fa am la reconstitution bi day yomb su fa amul nag ñu trier ba xam ne yii amul Mbàkke amul Jurbel amul Tuubaa amul Jurbel yooyu nag la ñuy jébbal gouverneur mu samp commission bi commission bi nag le préfet du département moom la loi wax ne mooy nekk président bi mhm. ak deux membres ñu trois président tribunal bi mooy contrôler liggéey bi bu waxtu wa jotee dañuy def benn genre annonce publicitaire ci rajo yeeg site yi hmm. ne képp ku am cas bii dem sa registre yàqu commission bi sàngam lay tàmbali firnde joo ci am nag indil moo xam volet 1 am hmm. moo xam bulletin moo xam ancienne carte d'identité moo xam nangam nangam nangam soo indee commission bi saytu sa dossier su fekkee wóor nañ ne lii moom lu wér la daal lay defal reconstitution bi defalaat la sa registre hmm. defalaat la numéro ba nga amoon ca cosaan mais président tribunal bi moom it am na wàll ci reconstitution moom am na kaa yoo xam mën na ko defar. Mhm. mooy kaa xam na ni ñëw nañ comme yow sa këyit. nga ñëw juddoo Touba. Mhm. dem ci sa registre ba 1990. waaw exemple ñu ubbi 90. Mhm. fekk fa registre ba waaye sa page moo xotteeku. waaw ñu demaat Diourbel. fekk fa sa registre. mais sa page xotteeku foofu. donc les deux exemplaires. du même registre. waaw la président du xaar sa commission. moom mooy jël jugement def la reconstitution. commencé woon naa ko temps yi passé Mbàkke yooyu nga doon dégg. waaw mais reconstitution bi nga xam ne ne moom moo moom mooy arrangé problème bii ñuy wax ci Touba ak Mbàkke. waaw ndax boo jëlee Mbàkke ñoom seen seen yàqu-yàqu. Hmm. yaatu na toll na ci mille neuf cent quatre vingt quinze. ba deux mille neuf. vingt quatre années ba deux mille neuf. vingt quatre années yoo xam ne nii. c'est-à-dire registre yooyu jafe-jafe am na ca. kon ñeent fukki at no ñaar fukki at. Hmm. ak ñeent du caaxaan. kooku kon commission faaw mu ñëw moo tax ñoom ga déjà seen maire mhm. euh, avancé na ci mhm. ba ba jël li ma la wax archiviste bañ defar document yi ba war ko yóbbu njaareem mhm. incha allah commission boobu moom on va l'accélérer mu tàmbali Touba nag moo ci des loolu également dinaa ci waxtaan ak maire donc ñoom it ñu wut archiviste déjà am nañ ko ñu sant leen liggéey boobu ñu defal ma état des lieux comme ni ko Mbàkke defee ma jébbal ko procureur njaareem ñu jox ko gouverneur xo gëstu Jurbel la fa am ak la fa amul hmm. ñoom ñu démarré seen commission. léegi président nag dama xamul man dama lay ñaan trente minutes may ko auditeurs yi wala de parce que. waaw nañ ko nañ ko may nañ leen ko may. waaw <laughs> kon ñu ubbi kon may nañ leen trente minutes incha allah ñu ñu ubbi ligne bi rapidement. waaw nañ ko nuyoo nuyoo beeg cantee gërëm yi moom defal naa leen ko. nuyu nuyu naa leen président santal naa leen gërëm naa leen ko. directement question bi rek su ko defee ñu mën a jël le maximum asalaamaaleykum. Euh, kooku dem na ñu jël kenn 33 976 09 09 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu jël mbokk bi UCAB FM asalaamaaleykum bisimilah allo. waaw kooku. Mbaye Ndiaye. waaw sëñ Mbaye. waaw waaw bisimilah. ngeen di kiite. ñu ngi sant bisimilah aha nuyoo nañu fa. ñu ngi diglu waaw kay bisimilah laaj bi. am na solo waaw waaw dama am sama waaw. waaye ñu rejeté ko. ñu rejeté ko. waaw ñu dañ nañ ma dafa am tampon bu waroon am ci am tampon bu. bu bu état bi waroon a def kay bi di nekku ci. waaw. waaw ma bëgg xam baxam moom boo moom ki defoon jib moo koy toppatuwaat wala yow yaa koy toppatuwaat. comprendre lu baax wala président yi comprendre nga li waaw li dégg mooy dafa am doomam bu doon déposé. déposé ba pare waaw. lu déposé ab examen la wala lan la. ah quarante. waaw ñu ne ko dafa am tampon bu ñu war am. waaw loolu rapidement je comprends li muy def. dafa am lu ñuy wax cachet nominatif maanaam euh, jugement bi ñuy defar ñun. original bi ñun ñoo koy téye. ñun copie lañ leen di jox. copie boobu nag greffier en chef bi. Hmm. maître Alassane Sakho. Hmm. mooy greffier en chef tribunal. moom mooy defar copi bi def ci cachet tribunal bi. mais cachet tribunal yooyu mu ciy def nag doyut am na cachet nominatif boo xam turam lay turam moo ci nekk turam cachet bu ndaw boobu turam di nekk nag waaw léegi effectivement ay nit ñëw ne daf ko fàtte léegi yow da nga koy indiwaat tribunal waaw laajte greffier en chef bi mu def ci cachet bi mu dem déposé waat problème bi réglé wu d'ailleurs sax yóbbante la su ma ko wax ne ko na ci gën a farlu ndax léeg-léeg ñu wax ma ko hmm. donc cachet boobu rek na ci dolli amul benn jafe-jafe amul looy fay amul dara waaw waaw incha allah jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf ñu jëlaat euh, mbokk bi euh, asalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw lay ziar bu baax. waaw kii de auditeur la moom it ah. atiwaat ah, <laughs> maa ngi ziare eh, président bu baax. ah, ah bisimilah. Euh, di ko félicité parce que wax dëgg yàlla depuis bi mu fi ñëwee ak léegi. Mm-hmm. gis ay soppiku yu rëy rëy rëy rëy ci mm-hmm. eh, eh, papier yi ah. mm-hmm, waaye nag dëkk bu toll nii Touba. waaw nous sommes deux millions de personnes. waaw kenn ku ne xam na ne. fi ñu toll nii dong dong sama bureau soo ñëwee dañ fekk cent personnes yoo xam ne ñu loolu bopp attanu ko mhm. décentralisation bi moom it mi ngi ci góorgóorlu bu baax a baax parce que li ñu ci def lépp xam nañ ko mhm. waaye nag il faut que aussi le maire et la mairie de Touba mhm. am volonté def ko pour mu àgg benn bi suffisam su fekkee te Touba dañ koy xool li fi nekk ci papier soo ko xoolee lépp entre décès ak euh, naissance ak yooyu waaw ëpp na neuf cent mille euh, papier neuf cent mille papier nag mënta nekk ay këyit ñu di ñu ko jox ñu di ko signé il faut que aussi informatisation bi. Mhm. ñu gën ci lu ba mu effectif ba képp koo xam ni agsi nga ñu man parce que lu nekk ci ay këyit. Mhm. ñu di ko yéen di indi. Mhm. nga xam ne léegi la ñu indi la cent registres par jour loolu na caa am réer na caa am jafe-jafe mën na caa beneen bi ci des nag li nga xam ne mooy euh, agent officier d'état civil yi aussi agent yi nga xam ne ñooy agent mairie. waaw ñu gën leen a bay xel. parce que nit koo xam ne nañ la dafa am benn jabar ñaari jabar ñetti jabar. avec un salaire de quatre vingt mille francs kooku lu ne mën na cee dugg te état civil mooy métier bi gën a dangereux ci hmm. ndax saa yoo xëyee dem sa bureau hmm. su ginnaaw subaa a nañ laa yóbbu prison hmm. maanaam kuy xëy rek da ngay xëy mais xam nga da <laughs> bi ci des gis nga université bi Cheikh Amadou Bamba nañ ci gën a bàyyi xel ndax dafa mel ni am na ñu ñoo xam ne ñu ñi ngi ñëw di ay jugement war faa jàngi alxuraan te am na ci ñoo xam ne dañuy na a laaj xale yu am juróom-ñaari at nga ñëw bëgg a def jugement gone ko am fukki at fekkoon na amoon na këyit ba pare te ñun loolu ñu ko vérifier parce que non inscription mhm. bala nga ko mën a vérifier da ngay informatiser ñu am këyit ñëpp mhm. mais tant que informatiser ñu am këyit mënoo xool ba xam non inscription bi ngay signé ndax fii am na këyit wala amul këyit parce que loolu informatisé état civil moo ko moo ko mën a indi. Hmm. te informatisé wu ñu. jërëjëf léegi nag xale yi nga xam ne dañoo nekk ay cent deux cent trois cent quatre cent xale wala dem ci université. Hmm. ñu amul këyit ba pare dugg seen i parents ñëw fii di wut ay jugement. loolu dañuy yàq état civil bu baax. jërëjëf loolu j'en ai parlé avec le maire. Hmm. bu xuma meer wax na ci suñ bare wi xuma wëpp ko mais man je l'ai je l'ai appelé bare wi xamal ko ne ko université bi ut baax na lool mais fiexee a ubbi dana yàq li li ñu may moo bariwut waaw maa ngi déglu baax tey tuub na daal ah. <laughs> jërëjëf di wax itam euh, vraiment euh, ah. président waaw ah. Euh, félicitations euh, mm. ndax wax dëgg yàlla bi mu fi nekk léegi wax dëgg yàlla moom. Mm-hmm. Euh, conditions yi wax dëgg yàlla mi mi mm-hmm. <laughs> mais volonté mairie bi moom wax dëgg yàlla war nañu ko yokk. jërëjëf moom itam wax dëgg yàlla ku ñuy jàppale ci wàllu kayit la sëñ Mbacke Mara ñu koy jaajëfal bu baax a baax UCAB salaamaaleykum. bisimilah. waaw maaleykum. waaleykum salaam. alhamdulilah. waaw kay ñuy ziar. waaw man de sama question boo la posé. bisimilah. waaw ci affaire kuy ba man divorce ba nekk de. affaire divorce divorce divorce waaw. waaw léegi par exemple léegi boo amee sa doom mu am borom kër. waaw. léegi mu bëgg am divorce mais waa yi dafa bañ nga di joxe parce que dafa dem ni tribunal ñu ne ko il faut ngeen di kati euh, kii. Euh, carte d'identité waa ji. carte d'identité waa ji. waaw mais ku góor ki dafa bañ nga di joxe carte d'identité waaw. ñu dem message si wax convoqué ko ba trois fois mu bañ. waaw. léegi moom nu muy def pour am certificat de divorce. waaw ah, président. parce que ñu ngi réclamé euh, effectivement li wax. Hmm. dama ci gis kaa yu dul jeex. Hmm. laaj bi leer nañu. Hmm. mais sensibilisation bi tey dama ci dellu. waaw il faut que également muy sëñ bi laaj léegi. waaw xam naa am na ci kaa. ak ñi koy déglu ak ñi ñuy déglu. ngir yàlla ni ñuy déclarer naissance. nañ ko déclaré mariage yi mhm. te dama ciy gërëm waaw sëriñ Muntaxa mhm. mi xalif général des Mourides mhm. ak waa daayira mu xaddimatul ma di ko jël jël gërëm gi di ko jaar ci loxo euh, imaam ya fa nekk jiite xale yi ak sëñ Abdou Lahad Bousso ñoom it daaw ak non avant covid bu njëkk ba dañu dem waxtaan ak sëriñ bi sëñ Muntaxa ci wàllu mariage yi nga xam ne nii mhm. dañoo bëggoon di ko matérialiser ci këyit mhm. ci jumaa mhm. sa loolu occasion tey waaw ñu wax ci mais dinañ am beneen émission entre mariage et allah donc sëñ jox leen digal ñu ñëw ci man gis ma man it may taalibe ci ñu ànd def sax ay réunion biir grande mosquée de Touba parce que sëñ mu ku ubbeeku la ci ci àddina xam xam xam nit xam xam taxawaayu nit mu nangul ñu def nañ réunion nag ba nga xam ne léegi jumaay Touba ju mag ji laa wax jumaa ju mag ji waaw képp koo xamante ne takk nga fa ab sëy waaw imaam bu mu tombeel ci tàkkusaan gi mm-hmm. dana la defal mariage religieux boo xam ne nii mm-hmm. mention yi ñuy soxla waaw ci mariage civil bi mm-hmm. lépp ciy nekk kon képp koo xamante ne nii imaam nga ci dëkk bi comme sëñ Muntaxa moo joxe ndigal li jaar ko ci ko Muxaddamatul ma bépp jàkk bu fi nekk wala jumaa bu fi nekk comme jumaa ju mag ji ju sëñ Tubaa ji moom la mun Muntaxa def loola ñu nangu ko defar ko te mu dëppoo ak l'islam ndax ni mu dëppoog mooy lenn mhm. diw mooy jëkkëri diw wala diw mooy jabari diw mhm. diw ak ñoo ko fekke biñ koy maye mhm. loolu dong nag moo nekk ci mariage yi ci maire bi war a nekkaat kon ci mariage yi loolu gisuma lu ci araam nañ farataal mariage yi daal kon léegi pour tontu sëñ bi directement ku fi amati ab sëy bu bu imaam noppee ca demal ca maire ba yaag sa borom kër ngeen dem déclaré ko su ko déclaré suba. Mhm. bu ngeen bëggee ñëw ci tribunal wala beneen service. waaw bu ñu leen laaj mariage. Mhm. coow du am mhm. mais président takkul sëy mais waaw maire takkul sëy ñu ne yëguñu ko am sëy. ngeen takkante mu neex ngeen toog. mu dem ba naqari. ngeen ñëw ne da ngeen tas. te institution këyit la xam. ñu laaj la mariage amoo ko. ah loo bëgg ñu def ko yow mi waroon déclaré déclaré ko. dee leen déclaré mariage yi. ak dese yi ak naissance yi. loolu mooy tont bi. kii moom kaam weesu na solution moom. moom na ñëw. tribunal seet si ma. am na fu ñuy jaaraat feneen mais dama doon ndax boo leen waxee solution day yomb. waaw day yomb solution bi dëgg-dëgg mooy nañ waaxu dem déclarer sëy. maa ngi maa ngi jox message jigéen ñi. Ah, ah, ah. jigéen ñi nga baal ma jigéen jigéen ñi. waaw jigéen ñi dëkk tubaa bu ngeen amatee boroom kër. waaw bu imaam xutba ba pare ba takk sëy bi. Mm-hmm. na ngeen ànd ak sëñ bi. na ngeen dem ca mairie ba. mu defal leen mariage. Mm-hmm. mu am benn. Mm-hmm. ngeen am benn. waaw jigéen ñi yéen moom loolu. <laughs> jërëjëf <laughs> salaamaaleykum. salaamaaleykum allo. allo waaw sëñ Pape Seck. waaw kay maa ngi lay ziar bu baax. waaw Pape la conseil municipal. waaw kay sëñ Pape maa ngi ziar. waa ñoo ngi lay nuyu di sa gan gi. ayca bisimilah. di la di la jaajëfalaat bu baax di jaajëf ICAP. waaw kay bisimilah. moom it ñu koy jaajëfal ndax ay waxam euh, wax dëgg yàlla dimbali na bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ko sant aussi ci yi mu yi mu leeral yëpp ak ni ko leeralee. waaw kay bisimilah. ak xam ne ci dëkk bii di Touba. xam naa di di di di di di soññaat rek euh, wax dëgg yàlla maire doonte comme ni ko kilifa googu toog waxee am na ay effort yu bari yoo xam ne def na ko waaye itam des na lu baree baree bari kon loolu des nag mu bari loolu man dama cee gis ñaari responsabilité benn bi euh, maire la benn bi tam dafay féetewoo ak askan wi ndax bu fekkee ne registre dañ koy jënd agent yi fa nekk itam dañ leen di fay te mu mel itam am na yeneen liggéey yu baree bari yu ñu war def yooyu yëpp Euh, mairie bi pour mu def ko faaw nit ñi itam respecté li nga xam ne mooy taxe municipal yi kon dañuy sonnage nit ñi li leen war ci mairie bi itam ñu gën cee góorgóorlu mm-hmm. euh, euh, xam naa laaj bi nga xam ne itam dama koy laaj rek dafay jëm ci li nga xam ne mooy agrément de transport yi ndax dafa mel ni dafa am ay mbokk yoo xam ne dañuy yëngatu ci transport bëgg ay agrément te yàlla dogal dañ leen di laaj seen photocopie carte d'identité waajur am na ci xam ne seen ñaari waajur yéen séq yëpp te jotuñu am seen ay ma doon laaj ne kilifa gi ñooñu naka la ñuy mën def pour am li nga xam ne mooy nationalité bi nga xam ne mooy tax ñu mën a am agrément. comprendre nag mooy santaat daal gërëm bu baax a baax. comprendre waaw loolu également bu dee ci li ma laaj directement muy hmm. nationalité. waaw yomb na. Hmm. Euh, euh, yoon saa saa su ne day tëral dara. waaw waaye danaan bu lii mënta am lee mën naa hmm. lii nga xam ne moom la njëkk a tëral. mooy nationalité ko bëgg. da ngay indi sa kayitu juddu waxul quarante. waaw extrait de naissance la la yow yow ko bëgg. ak copie littérale bi copie littérale mooy faaw nga am registre waaw mais léeg-léeg également ñu ñu ñu ñu woyofal ko mais ci tënk daal extrait ngay indi waaw ak benn extrait ci sa ñaari waajur sa hmm. sa bu wala sa bu baay hmm. ak certificat de résidence hmm. léegi nag comme ni mu boo amul bu dee mag moo bu yàgg waaw wala sa baay musul am këyit wala sa yaay musul am këyit malgré tout ça da ñëw déposé soo déposé dañ koy def enquête li ñuy wax possession d'état waaw defal naa ko fi ñu bari da ngay def enquête enquête boobu nag yoon moo ko permettre ndax gendarme yi wala policier yor enquête mhm. danañ woo ay seede mhm. ah kii fu mhm. ndax sénégalais la ku ko juróol léegi enquête boobu nag léegi mooy remplacer kayitu ndey wala bàyyi boobu manqué woon ñu jaar foofu defal la kon def gi moom day nekk wa rahmatullah bu baax a baax maa lay ziar di nuyu président ah Ahmadou lu ci bëri loolu mooy mooy mooy gàllankoor liggéey yu bëri. Mm-hmm. waaye ni mu ko waxee ci commune yi tamit même tribunal tamit lu lu mel noonu war na fa am ndax euh, ñu bëri dañu fay ñëw benn ci man bi mm-hmm. man maa ngi fi am euh, benn copie jugement boo xam ni depuis mois ngi nii ma topp ci ma fexe ba jot ci te jàpp naa li ko waral mooy kenn ka fa nekk wala ñi fa maanaam li seen liggéey li ñu war lu fukki nit waroon a liggéey benn nit di ko liggéey moom moom bokk na ci li ko waral mhm. yaakaar moo tax ma a yóbbu ma laaj ko mën naa la mën naa la waaw léegi copie jugement nga soxla yow copie jugement képp la soxla di après tabaski daa ko soxla waaw léegi bu dee copie jugement moom waaw euh, jërul dem mairie copie jugement tribunal ma war a joxe tribunal laa ko jël laa ko jësee waaw tribunal nga ñëw ñu ne maanaam mu mu mu mu nga def deux mois amul deux mois ngi léegi ban ban année la deux mille vingt et deux mille vingt et un bii la deux mille vingt et deux mille vingt et un depuis deux mois deux mille vingt et un bii laa ci laa ci laa amee woon jugement bi. nga ñëw fa depuis deux mois mën a ko gis. deux mois yi mënu ma fexe ba jot ba jot. moo tax moo tax xam nga loolu. man la interpellé directement. Ah, man mii njiit léegi nag. waaw wax naa ko léegi moo tax ma ne. dañ leen koy ñaanal. Mm-hmm. Euh, bu ngeen amee problème daal ngeen ñëw déposé fa dara mu yeex. waaw wala mu traîner wala ñu leen di wër ñëw leen directement ci man wala ngeen dem ci maître Sakho hmm. wala ngeen dem ci maître Fall donc xanaa ci maître Sakho mais yow moom yóbboo ji waaw man wax naa ko léegi xam nga tey jii dèjà dama bàyyi sax dara pour def dara doon di lépp ci liggéey bi la fii nga toll nii am nañu toog sama bureau di ma xaar hmm. ab courrier démb ci ngoon maa ngi fa di ma xaar malgré tout ça dama hmm. yaakaar ne ci liggéey bi la parfois it actuellement comme période bi ñu toll nii dañu nekk ci li ñuy wax vacances judiciaires sama adjoint dafa voyagé man maay jël audience yëpp maay def lépp donc mardi mercredi jeudi yëpp damay jël audience ñetti jours yoo xam audience laay te xam nga wax nañ ko léegi doomu aadama moom doomu aadama rek la. waaw loolu dëgg la donc moo tax ma ne la. Uh-huh. loolu day am. la également li may naqaree naqaree gis. parce uh-huh. heure bu jël visite ñi may wax ñu koy dégg. Uh-huh. ma lu ma lu ma lu ma ba ma commencé. du ma wàcc mukk fekk nit mu taxaw ci couloir bi. parfois nag am na ñoo xam xam lu ñuy def non man man moom ñëw naa sa bureau ay yoon yoon waaw gis na gis nga gis ni ñuy def xarit boo dañuy toog xam nga ni ñuy def dañuy toog dañuy toog ba 14 heures voilà ñu dem ñibbi waaw te man du ma ñibbi donc dama bëgg kuy ñëw tribunal métti na nag mais nga toog xaar ba sa tour jot la preuve dama commencé léegi ne sama secrétaire na def list hmm. bo yaa ngi gis liste ba bi nga boo ñëwee gis nga liste waaw waaw ah, maa ngi liste boobu damay boobu mais foofu liste boobu tamit président waaw ma wax la ci benn affaire hmm. des fois ñu jël liste bi war a dem ci secrétaire bi waaw jël liste bi war a dem ci président ñu dem ki toog loroon na dem ci président ñëw huit heures toog ba onze heures ñu toog ko ni président nee na du recevoir kenn xam nga loolu tamit comme yow doo recevoir kenn non non loolu loolu également li koy waral war teel a xam ne président tey du waaw loolu xam nga li parfois waaw moo tax man la yaa yaa man naa war a xam mën naa xëy si 9 wala di wala di bind ay jugement sama biir bureau. Ah. na liggéey bi lépp mënu ma ko tag teg fii. mais bu 11h jotee ma ne léegi naa arrêté recevoir nit ñi. waaw 11 ba nga war a nga war a nit. Hmm. parfois ñu wax ma benn affaire mairie bu Touba par exemple. Hmm. man dama xaw a sawar. Hmm. ma génn romb leen taal sama oto ñëw. parfois ñu ah. wax ma mairie bu Mbàkke dara ma dem. cest am na loo xam ne mm-hmm. euh, sañu ma ko wax. ci ah, rajo dëgg la waaw. mais mais mais li daal xoolal li daal li daal maire Touba. Mm-hmm. waaw maa lay bàyyi <laughs> ci ci néewaay bi. jërëjëf waaw li daal li daal maire Touba ci néewaay. jërëjëf li daal maire Touba ci néewaay élément. Ah, ah. moo dal tribunal ci néewaay. jërëjëf jërëjëf doon nii tribunal bi. ñaari juge sax. boobu la loolu ñëw ma ko wax ci kaw. <laughs> mu moo tax dañu bàyyi rek ñu góorgóorlu. am na ñeneen ñu seen laaj ci whatsapp yi xaaral ma jël ci kenn moom itam ñamal leen sëriñ Cheikh Thiam la tudd. la Touba ñu ngi lay siyaar daa am laaj bu ma itteeloon ma ma bëggoon ku ma ci dimbale ginnaaw bi nuyoo sa président boobu sama carte d'identité man daa am TM TM bi nag xaw maa jaaxal loolu ma doon xalaat ne ëllëg bu ma demoon ba bëggee génn wala ma am yeneen lu may lijjanti ndax mënuma andil gàllankoor sama kayitu juddu nag dama reer gisatuma ko waaye carte d'identité bi maa ngi ko amee woon Daaru may xalaat ne ndax mënuma andi ay jafe-jafe am de TM bi ci fi ni ma carte bi nekk daal moo am TM ñaari signe yooyu la am ñu ngi liggéey bi amante na solo. waaw mbiru carte d'identité waaw yaakaar naa waa police ak daaf. ñoo ci xam dara. ñoo ma gën a xereñ ci loolu. Hmm. léegi nag euh, bu dee kayit di wéréer bi moom. waaw boo xoolee ci carte d'identité bi am na benn numéro boo xam muy numéro extrait bi. Hmm. kooku. Hmm. ak année bi da ciy nekk. Euh, bu ñëwoon maire yi. waaw mu laaj officier yooyu ma lay wax. Mm-hmm. mu demandé euh, ñu xoolal ko ci registre yi ndax bosam mi ngi ci. Mm-hmm. mën naa am mu gis ko. Mm-hmm. boobaa ñu def ko renouvellement jox ko kayit. buñ ko gisul wala keneen moom ko la nekk fa nag. mooy li ñu doon wax day ñëw annulation rek. waaw amaat kayit bu baax. amaat carte d'identité amaat passeport continue. beneen ci whatsapp bi ba tey kii fii ci la laaj Ñaay Juuf. man la Ñaay Juuf dëkk Touba Darou Salaam ku amoon tout tànk boo xëy maanaam. dafa amoon kayitu julli mais ki euh, kayitu am ki julli mi ngi fi amutoon kayitu julli léegi damaa bëgg nga laajal ma ko ma xam nan lay nan lay nan lay def wax am kayitu julli lool rek laa doon laaj. waaw waaw loolu loolu rapidement rek tontu woon nañ ko mais dañ koy yeesal comme am na ko laaj te am na ñu ko déglu woon. Mhm. ndax dañ waxtaan di dab. Mhm. Euh, bu fekkee judd bi matagul at. Mhm. na dem ca maire rapidement. yóbbaale quarante moom kilifa googu. bu rombee at nag. Euh, na dem maire ba tey. ñu defal ko demande non inscription bi muy ni ko tribunal talaata bu jot am nañ audience état civil ñu defal ko kayitu juddu Sall ci WhatsApp bi ba tey. Mor Sall dëkk laaj mooy audience pare saa boo amee rek kayit yi laa doon laaj ak lan moo ko waral. kon bu fekkee da ngaa bind quarante normalement quarante yi war naa génn su ne boobu kon quarante ne trente cinq yi mooy génn yeneen cinq yi dul génn loolu laa doon laaj ci sëñ bi nag waral ak fekkee génn lu lit nan la ñuy def ba jotti jërëjëf waaw loolu laaj bu am solo la mhm. alhamdulilah depuis daaw mhm. ndax liggéey dañ ko amélioré mhm. léeg-léeg nga gis ab liggéey ay faay am ci faay yooyu nag bu ko nit ñi waxee da dimbali nga jubbanti wala yow nga gisal ko sa bopp depuis daaw nag am nañu jàmbatoon lii mu jàmbat ba audience non daaw jéeg donc audience bee passé bu daaw bi weesu rek euh, samay greffier euh, waxtaan nañ ci ci xereñte ba léegi trouvé nañ solution li ñuy wax traçabilité xam nga administration il faut un écrit mhm. bind bu amee rek lay du am mhm. léegi ñoom ñi indi déposé ku ci déposé boo indee quarante dañ lay defal numéro mhm. dañ naan euh, commune de euh, village de Darou Khoudoss euh, numéro un ba cent huit bordereau boobu lañ lay jox yow nga xam ne yow numéro yi nekk un ba cent huit yaa ko moom donc loola lu ci lu ci manqué ñun la mhm. boobaa boo ñu indilee bordereau bi ñu xam ne ñun ñoo la joxoon de numéro tel à tel mhm. ñun ñoo am responsabilité bi daaw defal naa ko fi ay nit bi seen yëf réeree mhm. dañu ñëwaat ma ne leen léegi ce qu'on va mooy frais yi moom dootu leen ko fay tribunal fay ngeen ko benn yoon duñ ko fayaat devant mon greffier en chef donc li ñuy def mooy in laat ñeen dossier yi ñu def ko mais frais moom dootu leen ko laat léegi nag traçabilité boobu bi mu am bi wàññeeku na te kuréelal di nga xam li nga moomoon ak li nga mhm. boo ñu ko joxee ñun ñoo lay fay mhm. am na solo euh, whatsapp bi ba tey euh, xanaa laataa ñu demaat ci yéen waaw salaamaaleykum kilifa gi am nañ leen bë ngeen dafa dafa amoon lu mu bëgg a laaj parce que man dama am euh, kii mairie Mbacke dama fa am këyit déposé ci déposé ci déposé ci carte d'identité am naa ci diplôme am ci carte am ci carte am ci kii Euh, am ci passeport mais Karok dama fa dem pour déclarer ñu ni ma sa numéro bi existé wul ci registre bi exactement léegi loolu laa bëggoon xam comment faire. waaw loolu également mooy cas bi ñu jëkkoon wax xam nga nee naa leen dafa dafa am année boo xam. Euh, fourchette bi fala la nekk. ab diggante bu yaatu boo xam ne ni registre yi fa bokk yëpp xaaj bi dañoo yàqu. wax naa it registre xam dafa yàqu wax dëgg yàlla. agent bi amul fu mu sukkandiku. Mhm. mënu la donc moo tax ma waxoon commission de constitution boobu. pour ku yàkkamti ku yàkkamti également. on est obligé nag. Mm-hmm. comme amuñu base. ñu annulé mais boo yàkkamtiwul nga xaar commission bi. xaar commission bi euh, mbokk bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ngi lay ngi jaajëfal leer gi mu soo am gan gi lu mel xanaa. Mm-hmm. waaw leeral naññi mm-hmm. man nag euh, sama kaa. waaw sama goro euh, dafa tudd Maguette Fall. waaw yaay sama soxna. waaw waaye ci biir euh, kayit yi sama doom ji doom ji mu ma yoree waaw moom màgget la ñuy bind xam nga bu dee jigéen màgget. ci kayitu xale bi màgget lañ ci bind. waaw léegi nag moom yaayam dafa gaañu. yaay ji tudd màggat. léegi am na benn rakk moo xam ay kayitam màgget la ci nekk. te hmm. seen léegi nag euh, li jënd loolu. Hmm. Euh, moom laa bëggoon laaj ndax loolu dana yomb mbir. Hmm. waaw ndax moom seen seen seen seen seen kayit yooyu moo aw yoon ci ñu war a bindee. comprendre naa laaj waaw waaw léegi léegi nag seen waaw comprendre baal loolu rectification la. Euh, kayitu juddu xale yi xale yooyu am màgget bi. Mhm. ku ci nekk da lay wutal kayitu juddu. Mhm. ak euh, bu fekkee seen yaay bàyyi na fi dentité. waaw wala kayitu juddu. Mhm. donc dentité wala kayitu juddu ba màggat moo cay nekk. léegi buñ amee màgget fii ci xale bi. waaw kayitu juddoom. waaw am quarante yaay ji wala extra yaay ji. am màggat. day ñëw rek def demande rectification bi. Euh, fay huit mille francs mm-hmm. loolu ba tey décret moo ko fixé mm-hmm. alalu état la mm-hmm. ci bi la koy faye moo versé ko trésor mu ñëw indi audience ma def rectification bi jox ko àtte bi mu dem mairie ñu ubbi registre bi am na solo 33 976 09 09 ba tey ci laaj yi bi kii itam bëgg Fallou lañ may wax maa ngi lay ziar bu baax di la màggal doon laaj président dama amoon benn këyit bu ko indi woon doon ci mairie bu Mbacké ñu xool ci registre yi ba sonn gisuñu ko ñu yebal ma foofu ci tribunal bi ma ñëw foofu tamit ñu vérifié ba sonn gisuñu année bi numéro boobu ñu ak année bi mu ñu doon wër am na ci extrait man loolu nag bokk na ci li ma jaaxal lool extrait bu mu ci bi mu ci am laa gàddu woon ñëw foofu ñuy wër registre bi pour génnaat ko beneen extrait mais war nañ ko mairie ba sonn gisuñu ko ñu wër ko tribunal ba sonn gisuñu ko léegi nag loolu moom euh, lu ci xalaatam ak lu ci pexe kooku nan lay def ba amaat ba amam kayit juddu li ci des mi ngi jëm ci wàllum mairie bu Mbàkke moom wax dëgg yàlla am nañ coono coono bu méttee métti lu jëm ci wàllum kayit juddu bu la fa dix heures fekkoon rek wala neuf heures da nga naan fii xana daa am lu fi xew tellement ni ñi sonn nañ lool lool lool ci wàllum kayit te keroog ñi ngi dégg ñu communiqué ñu ne ñi judd ci deux mille bi ba deux mille vingt deux bi ñëpp nañ demaat yes bu vérifier seen i këyit ndax daa am problème xam nga loolu tamit euh, bu bëggee dem di wët. loolu mu waaw loolu loolu moom. mooy tontoon nañ ci pratiquement mooy li ñu doon commission bi xam naa ko. waaw waaw ak it ak it ak it moom dafay extrait sax. vérifier na maire vérifier tribunal. mu moom daf ko jaaxal. jaaxle bi yomb na rek. Hmm. da mën nga dem maire yi. Hmm. doo fa fekk registre ba mu yàqu bokk ci yàqu. waaw loolu waa maire la. Hmm. parfois mën nga am extrait. bu ñu defaroon jugement. jugement bi. doon fictif sax parce que ay temps fi audience foraine. nit également amoon na agent yoo xam ay jugement fictif. waaw. loolu am na solo UCAB asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay ñu ngi jaar baax. El Hadj Pasteur Mbaye. waa kay sëñ Mohamed. waaw yàkkan joon nañ ko yónnee laaj ci WhatsApp bi. Ah, ca waaye xam naa laaj yu fa. Mm-hmm, bëri trop sax li ñu njëkkee nag mooy jaajëfal jaajëfal président donte waxtu bi xat na lool. Uh-huh. liggéey bi am na solo te lii mu def nii nag guleet nag ma gis ko ci président tribunal mhm, waaw kon nag président ñu nga ciy jaajëfalaat baax te mhm. bu mu yem tey itam mhm. te itam sa naataango war nañ la cee nag ngir gën a nit ñi ndax ku mel ni yow say wax bu ñu ko déggee dañ koy daal di gëm ndax rigueur bi ak engagement bi ñu ngi ñaanal baax man nag sama kaa dafa xaw a ndax sama soxna dafa yor prénom masculin jamono yi carte d'identité yi CEDEAO yi boobu moom dañ ko defaloon sexe masculin bi sama doom juddoo en deux mille quinze ma dem di ko déclaré yor suñu ñaari quarante ñu ne ma noo kii photo bi jigéen la mais sexe bi masculin ah, maanaam sa sa soxna tur yi góor lañ ko jox waaw kay waaye waaye sexe bi au lieu def féminin dañ ko def masculin waaw kay mhm. bi bi ma amee sama acte de naissance bi mu génnee hôpital Ndamatou waaw ma yóbbu ko pour déclarer ko waaw dañ ne ma kii dafa laaj vérification ndax erreur bi warul mën a ne parce que daa fa ma jaar te naa la laaj dara waaw sexe masque sexe sexe masculin bi waaw mi ngi ci extrait bi wala ci quarante quarante bi rek la ci quarante soxna si rek la yem waaw loolu nag mbiru quarante moom c'est très clair comme du extrait xam nga man compétence bi extrait la amee quarante moom waa police ak daaf la waaw léegi yow da ngay wut extrait de naissance bu bees. wut copie bu bees. waaw wut lettre de confirmation ci mairie bi ñett yëpp ci mairie bi la. boo ko wutee. nga def sa benn demande. de rectification adressé ko euh, directeur daaf. waaw nga dem déposer ko fa incha allahu rabbi. waaw ñoom danañ dugaat ci machine bi rectifier ko. waaw mais électorale waaw dama cee profité woon ko modifier ma ànd ko laal daaf waa hmm. daaf la. a ah, daaf directement waaw daaf daaf kay boo fa demee. wala li gën a li gën a yomb. Uh-huh. Euh, bu la neexee. Uh-huh. Euh, lu mel ni jeudi. jeudi suba aw ma audience. waaw entre onze heures midi. Uh-huh. na ñëw sama bureau. soo boo ñëwee. ñu lijjanti ko ñu woote daaf. lijjanti ko foofu ak yow. mais loolu moom pour pour pour ma wax ko ñëpp ñu dal rek. Ah. boo amee copie littéraire extrait lettre de confirmation bind sa lettre dem ba daaf déposé ko fa ñoom ah. rapidement même la journée sax man lañu ko tiiral nga indiwaat ko. wallaay wallaay waaw mais yow bu la neexee alxamis suba entre onze heures midi nga ñëw foofu. moom kay waxuma la onze heures waaye bu neexee yàlla ni ma ñëw. <laughs> su ngeen dékkee sama soxna incha allah amul benn problème loolu jàppal jàppal ne sotti na tey. <laughs> jërëjëf bàyyi bàyyi seex booy ubbi sa bureau fekk ma fekk mu soobee yàlla. jërëjëf jàppal ne sotti na. <laughs> jërëjëf Mouhamed Fam sant ko gërëm ko kii ci whatsapp bi la yónnee moom itam ñu déglu ko. Mbacke Fall Darou Khoudoss. lu may laaj sa gan googu man daawoon sama rakk bu amoon kër juddu fii ci 2008 bi 2008 waaye kër juddu bi depuis léegi ñu ngi koy war a gis ñu maa ngi ko maire bi ñu ngi koy war a gis ñu ngi war liggéey war nañ ko war war gis ñu ko am na ci ay pièces yu bëree bëri bëri lu mel ni carte grise rek ak pièces oto yu bëri ak yeneen pièces yu bëree bëri yi daa bëggoon sax nisalaati loolu waaye li li presque mooy liñ doon laaj léegi rek waaw obligation de reconstitution bi wala bu yàkkamtee ñu annulé mhm. mu tabaxaat président xam naa ñaanaatoon nañ trente minutes laaj yi bëri na nu jeexagul waaye xaju fi lépp vraiment bu ñu doon demaat ba quatorze heures sax du tax mu jeex <laughs> xam naa rek euh, dañ lay sant gërëm la bàyyi la nga tàggoo ak mbokk yi ak xëy na message boo xam ne bëggoon nga leen koo jox laata ngay tàggoo ak ñoom incha allah incha allah. waaw waaw ñu ngi waxaat euh, jaajëf euh, équipe bi nga xam ne nii ñoom lañ seqaloon waxtaan bi di la ci jiital. Eh, sëñ Cheikh Amar également di ko mm-hmm. ci eh, santaat di ko ci nuyu. Mm-hmm. ci jàppandal bi. Mm-hmm. ak eh, caméraman beeg <laughs> ñëpp ñu ngi leen moo Ousmane Sarr pour Dakar ñoom ñëpp ñu ngi leen sant. di sant dëgg yàlla population bi ci question yi. parce que surtout waxtaan la. moo fi toogoon li ma jàng ci lii di ko wax fii ba suba mën naa koy wax. te du am solo. li am solo mooy ñoom li leen jaaxal. man ma ko laaj moo tax interaction boobu moo am solo may wax ñuy wax mm-hmm. donc am na ko wax léegi incha allah waaw danañ def yeneen émission waaw selon suñu calendrier ak liggéey bi mm-hmm. waaye dinañ dinañ dinañ am bis yoo xam danañ laal ci divorce yi mm-hmm. laalaat ci mariage yi ba ci jugement d'hérédité yi yooyu yëpp dafa laaj dëkk bi ñu wax leen ci waaye man li ma bëgg gën a yóbbante euh, bi ci njëkk euh, sensibilisation rek la euh, wax ji wax ji nag waaw nit ñi ndax dama ko chaque jour. nit ñi ñoo war a jàppale seen bopp. Mhm. ñun luñ jéem jéem. Mhm. te nit ki du déclaré doomam. Mhm. bu amee ab sëy du ko déclaré. bu ku faat du ko déclaré. bu demee ba am soxla rek lay jóg. moo tàmm loolu. tant que amul soxla ci dara. du ko lijjanti. mais ku amati doom. demal déclaré. ku amati dese. bu bu bu bi jeexee ba sa xol giif. demal déclaré. ku takkati ab sëy ci imam. boo paree demal déclaré hmm. bu dee grande mosquée wax naa ko léegi hmm. ñoom sëñ bi joxe na ndigal ña koy def hmm. yeneen mosquée également man ak waa daayira xidma xëy na danañ ànd def message boobu ci yeneen mosquée yi ci ndigalu sëñ bi ñu continuer liggéey boobu mais daal li ëpp solo moom mooy incha allah man également wàllu commission boobu ma doon wax léegi gis naa ne moom rek daanaka moo mën a régler li ma ci war defit bu soobee yàlla ci biir semaine yi di ñëw danaa ko ak ñu yeggale ko gouverneur ñu gaaw samp commission Mbàkke bi ñoom seen mbir moom jege na. Mhm. waa Touba it ma leen di lancer message di leen soññ. Mhm. Euh, par le mhm. ñoom it seen archiviste def inventaire yi. def registre seen seen documents yi jox ma ko. man ko yóbbu Diourbel. pour ñoom seen commission mën am. donc loolu ñoo ngi ñoo ngi nuyu cant ak ngërëm yu jóge ci Serigne Chérif Assane di la sant di la gërëm. waaw la ñu ngi koy ziar di ko sa taxawaay waaw suñu <laughs> jërëjëf kon jërëjëf jërëjëf vraiment euh, vraiment day doyalunu te bëgg na nag euh, muy répété wu xaw ma nag nuñ koy organisé bëgg nañ muy répété wu bu bëree bëri ndax euh, mbokk yi bëgg na noo xam léegi-léegi dama koy wax fii jamono ji maître Abdoulaye Babou di ñëw ci émission yeete mbokk yi bëgg na noo xam bëri nañu nekk ci kaso yi tey tëdd lañ def xëy na tooñ nañ waaye tooñ gi ñàkk xam bokk na ci ñu leen di yee ngir ñu mën a xam fi ñu taxaw doon lu am solo euh, kon lii bokk na ci li nga xam ne mooy yee askan wi kon nu ñu mën a def bëgg leen jàngal rek dana doon loo xam ne lu ñuy sante la euh, te lu ñuy bég kon vraiment yow itam sa disponibilité yi ñu lay santaat di la gërëm bu baax euh, guleet nag ñu wax ko mbokk mu ko wax léegi ci téléphone bi yàgg ñu fi gis ay ay ay ñu fi teewal yoon jiite tribunal waaye guleet nag ñu dalal président bi mu toog di waxtaan ak askan wi te nag lu war a am la. ndax euh, lu nu bokk la société bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk kon dañoo war di euh, waxtaan di gindi konte su ko defee réeroo dana mën a bañ a am kon vraiment santaat nañ la gërëm la bu baax monsieur le président euh, di la ñaanal sa mission nga am ci réussite ndax ku la gis xam ne ku xam dëkk bi nga. te ku bëgg itam askan wi ñu nekk si jàmm la kon vraiment ñu ngi lay ndokkeelaat di la jaajëfal bu baax a baax euh, di sant sunu confrères yi nga xam ne ñëw nañu fii waa RFM Pape Mbaye Diaw ñu ngi nii taxaw ñu koy jaajëfal bu baax Dakar Actu Ousmane Sarr Moustapha Mbaye moom itam xam naa li mu yónnee woon ci laaj mënuñoo laaj lépp bëri na euh, vraiment moom itam mu comprendre ñu euh, président central la Cheikh Amar mi nga xam ne moo jiite kër gi lépp nag bokk ci ñi xam ñoom ñoo ko yombal ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi yónnee woon seen laaj te jotuñu koo dégg itam nan ñu comprendre xam ne amuñu yéene teg lépp waaye wax dëgg yàlla nag laaj dafa bëri bari boo xam ne mënuñu koo teg ku ci mel ne sëñ Gumba Amar ca Mbàkke ak ñeneen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di sant di gërëm ñi àndoon ñun tey spécialement la woon ñu dalaloon euh, monsieur Cheikh ñaan mooy président tribunal d'instance bu Mbacké mooy njiital tribunalu Mbacké moom la ñu dalaloon doon waxtaan li ñu waroon waxtu lépp nag ñu koo jeexal ndax waxtu yi euh, te am na solo nag li liñ ci jot taataan incha allah rabi ñu leen di joxaat daje di jaajëfal suñu sponsor yi nga xam ne ñoo ñuy gunge saa su ne ci seen émission bi li ñuy waxtaanee Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci àddukaay gi wàllu machine bi yéen askan ci déglu bi. sant gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun Moustapha Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar mbokki kon ñu bàyyi leen ak programme rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëfati groupe de communication